baawal li ak buntu weesul xaj ci at wala xumra ci ak xumra loolu ci lañu jàngale lu aju ci at ak xumra wa xajju baytullahi ak néegu yàlla ba alxaraami ba dem armaal allahi ba nga xam ne bi bakkata nekk na ci màkka sariyatin farata la xalaa kulli man war képp koo xam ne istataaxa attan na ilaa daalika jëm ci loolee sabiran aw yoon mooy muslimiina ci jullit ñi al axraari na di ay gor ay baalixeena ñu day kàllafe maraata na woon si humrihi ci dundam daf naa ko woon nee na farata la ponk la sax ci ponk lislaam waaye nag ci koo mën ci ku ko mën rek koo xam ne mënoo ko rek wàcc na la day war nag mooy jullit ndax yéefar moom dañoo njëkk sàkku ci moom bu ñu yàlla njëkk dara sàkk ci moom la moo tax day war mooy gor jaam moom waru ko day war mooy mukallaf dana bu ko defee mu wër ñëw waaye taxul mu war ko te bu doonee mukallaf war koo defaat bu ci farataam mukallaf la war benn yoon rek ni nga war soo ajee benn yoon te sart yëpp daje ci rek jeex na ak boo ajati ak naafila la waaye jëm ak googu rek mooy farata loolu lépp nañ yoon wi ana lu yoon wi wa sabilu sabil ak tariixu muy yoon wa ak saadilu tey di ñu yoonu wa zaabi ay yóbbal ba ay muballixu day aji àggale ilaa màkka te jëm màkka wal quwwatu ak kattan àlla soolu ci aju ba ilaa màkka te jëm màkka imma raakiban benn mu aji war daa raajal la wala mu aji leeru leeru mooy doxub tànk ma nasihatul badani ànd wéeru yaram nee na bu ñëpp mën yoon wi rey mën yoon wi mooy fa ngay aw dana màkka loolu jàmm rek ci xew dana nit xaax wala koy rawaate wala koy nangu alal lépp dara nekk fi jàmm rek xew ci yoon wi mais ci sa bopp mën nga boolee wér goo xam ne mën ngaa dem bu fekkee foofu mënees koo dox nga xam ne paas la ñu def am nga paas bi bu fekkee mënees na koo doxut wala wér gi mën ngaa doxu beneen ko bu ci sart yi dajee daal moom kon war na la waaye su fekkee amul paas bi mbaa amul yóbbal bi nga xam ne moo moo la war a yore ba mu mocc itam mu war a ci yoon yi ba nga xam ne mën a taxaw sa bopp ca li nga amee ci mocc nag mbaa nga yore ji sa yoon yore ji mbaa nga nee doole ba nga xam ne mën naa di yëpp rek te naa ci la wa innama yu'maru naka def na ko digal ay yuxoona mu armale mu ne ñuy xaatu ci miixa armal mooy yéene dugg ci aj gi dañ koo sàkkal waxtu sàkkal ko bërëb waxtu yi moom mooy bu war ko rek teroo la ca tàmbalee topp di jiitu bis yooyu jëm ci fukki fan yi nga xam ne mooy njëkk ci weer tawas bi waaw weer yooyu mooy war ak shawal joti di jël xija bërëb yi nga xam ne ci la ñuy armale nag moom miixa nag moom la bëgg wax moom léegi nag li tax ñu ne lu digal nga armale ci miixa mooy bu yàlla dogaloon nga jéggi sa miixa fa nga war a armale gannaaw ba nga armal te ñu ko ba ca moom faaw rek alamal mu war la xa jéggi nga jéggi sa miixa wala te armal kon nag armale ci miixa bokk na ci war a bari wa miiqaatu ahli shaami mi xam leen shaam wa misra al misra wal maghrib ak maghrib muy sowu al juxfa te mooy juxfa loolu tuddee shaam ab gox la woon nga tund nga wax siiri léegi ak misra ak maghrib li ci soow di ba ci marawat li ci soow ba fii nekk yëpp bër bu wax jur fa mooy seen armalookaay jamono njëkk yi njëkkoon aju fii jur fa fa lañ awe woon waaye léegi nag xam nga li waa Sénégal baaxoo mooy dañuy bàyyi ko fii bugg ajoo daal di wàcc Madina bi nekkee ñu wàcc Madina sax fa lañ sax dañ joti ko nag léegi yëpp si Makka xam ne kon léegi dañuy bokk ak waa Madina far benn armalookaay fa in marra ndem romb nañu bil madinati ci madina fal afdal la gën lahum ñeel leen ay yuhrima mooy ñu armale min miqaati ahliha ci ñu xam min madina min dul xulayfati te mooy dul xulayfa nee nañ ñu ko ci xam ne jaare nga madina lu gën mooy nga bokk ak waa madina benn armalookaay te mooy fa ñu wax dul xulayfa
waaw ñooñu mooy ñu bàyyi ko saam ak misra ak maarib muy ci sowu bi nga xam ne ñoom seen miixa dafa nekk ca kanam ak ñoom dañu sopp rek bu ñu rombee Madina ñu bokk ak waa Madina armalookaay waaye du nekk lu war ci ñoom ndax seen moom maanaam seen miixa dafa nekk ca kanam moo tax
wa miiqaatu ahlil xiraaq miixa ñoom xiraaq ذات هرق ما ذات هرق وأهل ذات هرق ما ذات هرق وأهل اليمن يخن اليمن ولم لم ولم لم وأهل مد يخن المد من قرن مقلة قرن ما فخمنا يالنا بك هراق با فهم ورم بدنو ما هو هراق هم ينبك فني آمي فهم يبدو ذات هرق ko xam ne yaa nga dëkk yaman maa boo ñëw yaman nga ràññi ba tey yaa yaman yéen a bokk fu daa yaman ma yaa yaman ko xam ne yaa ngi bokk ci tund nag bi maa fa nga ràññ boo ñëw ba tey xam ne ngeen di armale yaa def rek leer naag ma yëpp armalookaay ba nekk nag foo ràññ may ñëw rek foofu mooy sa armalookaay wa man marra ku ràññ min xëy laay ci ñuy ba madina ci madina fa waajibin ajaar la xaale ci moom ay yëframi mu armale min jël xulay fa te ci jël xulay fa dëggal laa taxam baaxu di ko jéggi ilaa miiqaati njëm ci miixa loxo ñeel ko
maanaam ñun wax naa bu ñu rombee madina faaw ñu war faa armale mooy waa xiraaq waa yaman waa najd ñun seen miixa dafa nekkul ci seen kanam moo tax kon nag duñ sañ a weesu madina bu ñu fa rombee te armaluñu loolu moo ko wutaleeg ñee nga weesu woon te ñu bàyyi ko misra wala cham wala maarib maanaam wàllu soow bi daal
الهرم من أرمى الحاج أجأت أو المؤتمر ولا أجي خمرة بإجب الصلاة فرجة تبنى وجنك فرجة أو نافلة ولا نافلة أرمى مينة تستخل بدال دبجي جف أجي لا لا لا بدأت ما لا بدأ أمر وتبنى مينة تستخل بدال دبجي خمرة يوار من الله سبنا متطب جلي فكي نافلة لا نرف نارواتا بار المال fekkee ne farata la baax na mu ne woon jël naaf la nag moo gën ñu ci ñaar waa ko wax na ñu jàng faatiha ci bu jëkk ak kon waay kaas rek dina rëbb faatiha qul wallaahu ba sonn la daal di armal bu armala na moom daal tàmm wax la bay ga ndax bu armala mu yàgg teefee ko rek day mala moom yaqul day wax la bay ka uwu naa la ci gannaaw uwu allahuma yow buur bi la bay ka uwu naa la ci gannaaw uwu labbayka wuyuna la ci gannaaw woowu laa shuruuka amul jenn aji bakkaal la ko ñeel la labbayka wuyuna la ci gannaaw woowu inna alhamda naka cant ba wan niamata ak teewal ba la ko ñeel la wal mulk ak nguur ga laa shuruuka amul jenn aji bakkaal la ko ñeel la labbayka na lay ko waxee yow suñ dara woote nga woote woon ko acc sa néeg yi wuyuna la wuyuna la wuyuna la mooy ñu ñëw topp ci sa ndigal li labbayka boobu nag nee waxee léegi boo door armal bu wàgg teewal ko rek daal di mala moom dañ ko toog ci suñu riwaay war wàll loolu it tamit yéene ma arab la mu namm man xajjum ci aj waxu rek nga la fa mbar man boo jullee ñaar rakk la daal ba salmal wax sam xel ne yéene na ma aj mbaa yéene naa xumra waaye teewal daal la nga yéene loolu daal mooy armal daal tam la wax la koy wàññi nag loolu mara des na ko digal ay waxta si la mu sangu xindal ihraam fa nama armal xam ay yëngu nag njëkk muy armal ba bokk na ci sunay armal mu ko jàng woon ci téere ni ci tasaw bi ci xaar bala nga armal nga sangu te nga lu nga sangu te moo la fif ci armal bi te nga loolu sunu la waaye te jaral te mu sunu ko mën na xeeti fiyaa bi ci ñëw yére ñëw ñëw malaan maanaam malaan yi ñëw boo doonee góor day araam nga armal dana te sol ko xam nañ ko war a sun bala nga armal bu dee jigéen nag mën naa sol yére ñëw ba tey dañ ko tudd sunu la waaye foofu mu nekk war a war la boo sol yére ñëw daal di mën a waaye taxaw bu def na sopp na ñëw ko ay waxtu si la mu sangu lu dox lu màkka te ñu bëgg màkka sopp nañ bu bëgg def màkka mu sangu wala wasaali di dañ yu lab yi di wax la béykat bëgg raf salawaat ci gannaaw jullee wax nda ko lu sharafin ak sa yëpp tund wax nda mulaqaati yu faax yi ak fatasit amandaaye nee na bu amalee ba tàmbalee wax la béykat noonu boo ko bàyyi bàyyi bu réer lu may rek mën a tey jël arafa nga dem ci jullikaay ba te arafa la bisu ñeenteel ba lay doon kon nag boo boo julli moom faaw nga bàyyi ko waaye kon boo jullee ba nag nga yeesal ko boo doon yëgu tund wax geeg yëg gi jafale it mën ngaa bàyyi ba yëg tund ba noppi dal ko yeesalaat boo tax rek say ànd ndaw ngeen nuyoo ko jàmmantee ko laajante itam mën nga koo dagg waaye bu loolu jeexee nga yeesalaat ko ba nawoo ba ba yow itam yeesalaat ko noonu ko def rek boo sonnee itam noppal rek boo boo noppal jëlaat ko moo tax ne wala sa xale yi di ko war kasratul ilhaahi barik xooxla ga maanaam barik sëg ba mooy sox ba bu maale ko ci loolee loolu taamoon nga takkoo ko takkoo goo xam ne day mujj sàllaame rek mu wax waaye xol bi teewlootu ko li gën daal mooy nga dig doomu ci waxin yi boo sànnee noppalu mu yëkkatee sa kàddu itam yem ndax bu fekkee dañ ko takkoo wéyal mbaa sa kàddu ko lool ci loolu koy day mujj mu gaaw a sonn mujj mu sopp la loolu ñu defal dig doomu rek فإذا دخل عندهم جبن مكة مكة من شك مجاب من مبايرك عن التلبية والزوح لبيك حتى يتوفى من يركابه ويسعى تمدخ سنة مره سنة يحاولها تترنا كبامي حتى تزول برج الشمس جنتنا من يوم حره تتنسى حره ويروها تنقمت إلى أن صلى جنس بلك أيضا أنا ما يبدو أرمي يسموها مباوح دموه ساعد سيدنا كنمون بسيط في وقتك سيبقى فكر الآجوانكم يكبرين لهم خلفان واج بالفرماليتي يبنى جهه nga jël rek taal ga wër ko waaye nag boo duggee màkk soo jëloon nag daal di bàyyi laaj ko ci kon fexe na tegatee say bagage ak na waaje wala ñu rek wuti kaaba daal di koy wër ñu jëloon nga bàyyi laaj ko ci su ko defee nag boo wëree kaaba ji ba dox sa faal mu raw lépp nag maa tàmbali waat laaj ko ci nag boo nekkee fa sa dal sam loolu rek di ko wax boo sànni noppalu boo nga tey ci la arafa da nga ñëw rek jullikaay yi foofu lañ koy bàyyi bàyyi wër wër nga xam ne doo ko waxati ci àjj ويستحب دفن صف أن يدخل منه جماعة مكة من تبع القمية كما دمنا وقت تبع القمية والله باب مع الله من قومين وإذا خرج الجنة من الجنة خرج من الجنة من قدم تقدم وإن لم يصل إلى الجنة جسد في وجهه مزيار الموت فلا حرج تنبي الذكر بزور لأن دمنا الجنة جماعة من يكون جدنا وقت تبع القمية تبع القمية ñu ko baabu mu allah soo ko dee génn itam soppal ma génn ko mu wax ko dam bu fekkee bëggoo ko mbedd ma génnewoo ko may dara wute nekk xanaa wax na moom malik xaalam malik nee na fay saa ba xalam doon ko jënd màkk te màkk fale du xool mu daal di dugg al masjid jàkka yi al xaraam ba di armaal wa mustaxsanal tam ñu rafetal ay yedd xalam mu dugg ko min baabu benn shaybata ci bunt benn shaybata moom léegi baabu salaam yi koy meene فيرسل متمرحا الحجر البدو الأشعر والأجمال بفيه تجنبا إن قدر دم أتم لكم من منكم وإلا دم منكم ومهمتك وبها لهم عليه تكون دليل سوى ضحى تك متجاب الخبا على فيه تجنبا من غير تقدم جنب الموت سنة توهتك دلورنك والبيت تمرنا النور على يساره مكة مكتاملا سبعة أطواف جرم يارور ثلاثة النت خباب قبضا تلمك talaata la ñett xabagam ci ñett xibaar ba xatam pàpp ñeent machine ci dox ndànk maalu nee na boo duggee màkk soo bay daal bawal yi kaaba gi wër ko muy bëgg na nga daal di def loo mën def ci gaawante rek daal di wër kaaba gi su ko defee nee na boo duggee boo duggee bëgg kaaba gi yooyu nga duggee bunt bi ñu wax baabu salaam ñu la tuddee ci téeréem bi baab boo nee say bat waaye baabu salaam ñu ko mën a mën a léegi soo ne yit soo bay daal bawal yi dajale ci kaaba ba ca la koy feene si giliñ fekkee mën nga ba fekkee mën ko feene si giliñ nga jël sa loxo raayee ko ko di laas ni sa loxo boobu teg ko sa giliñ te bañ a mën sa loxo bu fekkee ne tam ne loolu mënoo ko soo jot taxaw rek tolloo mu allah akbar daal tàmbalee war nag mais day war nañ mooy bi lay càmmooñu mais bu fekkoon ne ci diina boo ko dee war mu nga aaye fekk li càmmooñ boo ko dugalee ci bor bi ci kaw xayma rek mooy boo ko doon seetit lu tax bone mat kon na ngay seet boo wëlbati ko jël ci xaalis liquide bi di ko ko mottalee ba xam moom nu muy def su fekkee ne boo seetloo ne boo jëlee ci xaalis liquide bi mbaa muus liquide di ko mottali dina mat bu baax daal tàmbalee war a nag mais day war nañ néew bi lay càmmooñu léegi fekkoon ni kii diine boo ko di wër mu nga aye fekk li càmmooñ boo ko ayee mu kon da lay ndey jooree kon ngay càmmee nga néegi te ñaari weer lay doon bu fekkee ne góor la suñu rek ne mu nit ñett weer njëkk yi ndegam yaatu nga may ne ko woon ñeent yi nit yi mu dox ko nànk weer boobu ne moom la ñu wax warut ñëw te waa fekku moom warut ko door a dikk màkk kooku nag warugar la boo ko bàyyee alamaa mën ko waa fi ifaada te waa fi ifaada moom ñu ngi koy ko def ci bi ci tabaski bi kum rawut ويستلم بنفهم الركن تنك وكلما مر سائر به كما ذكرنا نكما تبين أنا بودر كابا بن ياريوني saa yoo toll saa yoo tolloo ba ñu nga fay jàdd fóon ko fóon bu njëkk mooy fi mu la woon mais fóonaat ko ci yoon ko def nag mooy biñ topp la mooy ajrut wala yastalimu di fóon arruk na tenk ya alyamaniya tay ko jóg yaman bi fiihi ci diiñam walakin waaye biyadihi da koy raay ci loxoom tumma yadahaha topp mu tegaat loxo ba xalaa fiihi ca gémmiñam min xayri taqdirin ci lu dul muucu waaw daa wax ne alxajar al aswad moom la ñuy fóon waaye arrukunul yamaani moom donte mën nga koo fóon ak sa gémmiñ du tax nga fóon ko sa gémmiñ dangay dangay jël sa loxo raayee ko ko jëlaat sa loxo teg ko ci sa gémmiñ te bañ a muucu sa loxo boobu fa ijaa tàmmande mat na tawaafu xëwëram nga rakkaxa mu julli ñaari rakka ma nga noo sax فإذا تم من متنا توافه ورمغ ركعة مجلي بين قاوس وقام إبراهيم ركعتين نيار ركعة لأن جرم نيار يوري متى جرم نيار يوري لا بجوح لأن فما قام إبراهيم جلي في نيار ركعة ولا يوح نيار ركعة يوري المسلمة تتمسونات الحجر بلو إن قدر من من نبو لو يوري بجاهنا لا ورا دم دهي سفا مروة وعي بجنين بلنغا دم تسفا بجارة تبجي الحجر الأسود فونكو loolu sax booy jàng ci yéen saxaar sunna lañ sunna lañ ko fa tudde woon sunna lañ ko fa tudde woon mooy góor yi jeexee nga bëgg a dem safa nga jàdd ca doj yi fóon ko door lañ ko safa raqir su ma waxee ba topp mën a génn illa safa jëm safa fa raqir ma ñu taxaw xale ci kaw safa li duxaay ngir ñaan su ma wasaa topp dana dox ilal marwatu jëm marwa mais nag safa ngay njëkkee boo ca àggee sunna la ngay yëg ci ba ca kaw marwa it noonu dina joxe ba yéeg jigéen sax bu fekkee ne place ba yéeg na mën naa yéeg place ba amee ay góor nag kon mën yéeg su ko defee ba yéeg ñu ko dawee tam ngay ñaan ñaan boobu dañ woon sunna la boo noppee ci saa nga dox ba ci marwa mais ni def noonu yéeg ba ci kaw jàkkaarloo kaaba gi tey ñaan loolu daal nekk yenn yoon ba waxul bu tënee yëkk fi bat mil masiir yi ci bat mil masiir lu nekk diggante ñaari poto yu wert yi ñu koy wax maa bay nal mii lay nag ax bare yi dañ koy woowee bët yi machine bi ñu koy waxee ba tey boo wax sa maro ba àgg foofu dañuy bëgg nga gaaw ba weesu ko waaw wax sax na pour jaay li fii bët yi machine ñu ko jàngoon sa xeer ci xaar boo tolloo bët yi machine dañuy bëgg nga gaaw ba weesu ko loolu ba tey sunna la fa isa ataan dem dikkal na almarwata marwa waqafu mu taxaw xale xaa ci kaw marwa li duxaay ngir ñaan maanaam boo asee ci marwa it ni ma ko waxoon dañuy yëg ba ci kaw jublu kaaba gi tey ñaan su ma saa topp mu doxaatati illa sawa jëm sawa yoo xam dana def jaarika loole fa ba xam maraat juróom ñaari yoon su yàq fi tey taxaw di jaarika ci loole arbaxa waqafaati ñeenti taxawin xala sawa ci kaw sawa wa arbaxa ak ñeenti taxawin xalal marwa ci kaw marwa maanaam léegi ba bàyyi ko safa ba ñëw marwa benn yoonu nag soo bàyyi ko tee marwa ñëw safa muy ñaar soo bàyyi ko te safa ñëw marwa mu ñett nga xam ne benn aw yoon la dikk aw yoon la ñun nga koy defee ne bay juróom ñaar yoon loolu na boo ko seetloo fenn fi nekk da nga fa taxaw ñeenti yoon fi toll boo jëlee sa bindukaay bind fee safa bind fee marwa seet ne ñëw naa fi taxaw fi def ab tomb dem ne dem naa fa taxaw fa ko defee mu yenn yoon ba defee tomb boo ko seetloo bay juróom ñaar yoon fenn fi nekk da nga fa doon ñeent tomb seet ne fa taxaw ñeenti taxaw sama waxee ba toog dina génn yow nag tariya te ci gisub tariya ba ilaa mi leen jëmmi nan maanaam boo agsee màkka di wër kaaba gi ba def safa marwa nga dellu fa sa dal rek toog ndegam gisu tariya bi mu wax ak séegit nga dellu toog fa sa dal rek bu julli jotee rek nga fexee julli ji kaaba ga ndegam mën nga ko day siwaat toogaat te bañ a fàtte itam la bay ko ji suñ ne tey julli yooyu tariya mooy teelle juróom-ñetteelu fan ci ci bis tuuti mooy bis bañ tere woon jël si waat na tey jii bis boobu nag ngay xëyee màkka dem bi nag ngay fexe nag ba jullee ji mu nen tisbaar ba tax mu naa foo sol wita muy jullee bi xaa ci minan ak jëfra tisbaar wal xasa ak takkusaan wal maxriba ak timis wal xiisa ak gee wa sufa ak suba ngay fexe ba jullee jëfa tisbaar te yem na fa fanaan fa boo fanaanee ba xëy ba julli suba nag suba boo nga xëy mooy bisu arafa ndax mooy bisu juróom-ñeenteel ngay arafa nag mooy suma yem bi topp dana mu wéy ilaa xarafaat jëm arafa ko defee nag ngay dal jaawale arafa ولا يدخ ببعي التلبية يخلق فيها جاجمي كله لبن حتى تزول مترك أسمح جنتي من يوم حرهة بيس حرهة ويروح تنبنك إلى مسلاها جنتي لكاين با من هي الله لب بغير ابن ترك فمن هي سبال باك يترك labay ko jël la ko xewon bu ko fàtte boo sonni noppalul boo amee lu ko dagg bu loolu jeexee jëlaat ko ba yéetee jël arafa ba nga ñëw ba ci jullikaay bi nag foofu koy bàyyee bu wér wala ta tahir na sangu xawla rawahi ci ñëkk ngontam day njëkk ak jamono rek arafa mais bala ngaa dem jullikaay arafa ba rek bëgg nañ nga sangu te ngaa lu ci ngaa yu sopp la bu doon ko ay mbir mbaa wëssul ci digga ñu sopp ca ngaa loolu xëy jëlee itam yi boole bay na duhri diggante tisbaar wal xafi ak takusaan maxal imaami ànd ak ilimaan ba suñu mbiri arafa dañ fay boole tisbaar takusaan jullee noo leen te wàññi leen ba tey leen di wàññi léegi sax nañ koy toj rajo bi ngay dégg leen sama yaro yi topp dana doon tamaaxu ànd ak ilimaan ilaa mawqif arafa te jëm ci taxawaay arafa fa yàq fi tamit taxaw maaxu ànd ak moom ilaa xoree bi samsi ba ci soxor jant maanaam su jullee tisbaar ak takusaan noonu ci arafa boole leen te wàññi leen ilimaan di daal di ànd mbooloo mi ñu doon taxaw fa ñu war a taxaw ci arafa taxawaay bi ñu taxaw laata jënt bi sanab waru gar la yoo xam ne soo ko bàyyi am naa la maan waaye bokk teg taxawaay bi farata dëgg-dëgg taxawaay bi farata dëgg-dëgg moom mooy bu jant bi soxee nga taxaw fas mbir rek mbir soosu lay gàtt gàtt moo mënta ñàkk nga xam ne bu yaay dogalee jant bi sox ba fajar fenk ci taxaw taxaw fa taxawaay boobu acc raw na la ci noomaat boo nit rek acc raw na la sama yedd foofu topp dana jëm bi def yi ci jiyal ilimaan ilal musdalifa ti jëm musdalifa fa yusali te ngay julli maa xoo ànd ak moom bil musdalifa ti ci musdalifa المغرب تمس والعشاء جيه صفا ak suba maanaam bu ñu jant bi sooyee ci arafa dañuy yooxe timis bi ba ñëw musdalifa bu jant bi sooyee dañ koy taxaw si biir waaye yoon bi ñëw musdalifa bu ñëwee musdalifa jullee fa timis ak gee ñu leen di boole jullikee jullikee fa saasa waaye gee dañ koy wàññi timis na moom deesu ko wàññi faaw na nga wàcc musdalifa yoon ba wàcc say bagage yi fekk nit laa fanaan wàcc boobu waru gar la boo ko deful amal amaan lu gën nag mooy nga fanaan benn yoon li mu wax ba jullee fa suba dafa naan bu jógee fa suba nag ci mbir mi ci mbir mbir moom nga daal dafay jóge loolu wax mooy suñu yàq yi topp mën a taxaw moo ko ànd ilimaan bil masharil xaraam ci al masharil xaraam yow ma ifam tiis boobee bi xaaju musdalifa day jullee sa noppi nag daal di ànd ilimaan ngeen taxaw fa ñu wax al masharil xaraam foofu dañu fay taxaw ba jant bi fenk ba mu jógee fenk mooy suñu yàq dafa topp dana ji di xóor bu tulloo si sam jógee fenk jant ilaa mi leen jëmmi nag xam nga jógee boo xëyee mooy doon bisu fukkeel bi bu dee dina fii muy bis tabaski ndax mooy taw bi fukkeel bi ci boobu nag kon ba xëyee foofu ci mustalifa taxaw na sari xaraam noonu ba jant bi jógee fenk ñu daal yi ci minam léegi xaral gu tamit yëngal daa ba taxee daabaam ja ba bat ni muhassirin ci xur yi mu wax bat ni muhassir muhassir aw xur la yoo xam ne siiw na ko tuddee bat ni muhassir boo tollee foofu te fekk ngay góor na kon sunna la ñu ko xëyoon ci tasaw di ci xaar ko defee nga gaaw boo waree soññ la nga war boo dox itam gaawoo ci sa bopp fa ida wasala neen àgg na ilaa minan jëm minan rama mu sànni jamratan xaqaba ci jamray xaqaba te sabahi xasayaatin ci juróom ñaari jàmraay jàmraay mooy xeer mit la xasal xab bi kenn jàmraay fettax di tax ne kenn jàmraay fettax mooy day nekk doge yoo xam ne bu rëy bu ëpp du tuuti du ëpp da nga koy mën a fettax ak sa baaram daal ويكبر تاني وخ الله اكبر مع كل حسنات عند البوك جامراي انا عاوز فيك باي كو ني مستريه ci suba gi daal di xëy si minam soo ak see minam di ngay njëkk njëkk def mooy daal di sànni jamray xaqaba mooy xaqaba béréb la bi war a sànni doj nga dem sànni fa juróom ñaari xeer xeer yoo xam day juróoma nga mën koo fettax ak baaraam te xeer wu ne doo koy sànni wax allahu akbar suma yan xaru topp dana loj nag inkaar ndem nekkoon na waaxoo di ànd ak moom xaddiin addiyu suma yax li ko topp da nga watu gannaaw boo ak say bi ba sànni jamray xàq ba la nga cay teg mooy rendi wala loj la nga xam ne moom nga amee di ko rendi baa nga di ko loj dana war nga addiyu comme say balaa koy def noonu la cay topp nag mooy watu noonu lañ koy tegalee sànni jamray xàq ba yi loj addiyu na daal di watu suñu at yi topp dana dikkal albayta kaaba ga soo suñu dañuy dëbbal waya toofi te ñu wër sab xan juróom ñaar dañuy dëbbal jooju turi mu rëy rek waaye waya toofi te ñu wër yi ci toj ñoo bokk maanaa dañoo dikk ci kaaba wër ko rek la ñuy wax juróom ñaar wër wër boobu nag mooy tawaaful ifaada ndax te yàlla fi tabaski bi bisu fukkeel bi weer kafe te mu julli ñaar ràkk mais bu wër bi matee nga dem julli ñaar ràkk fu maqaam ibrahim muy ñaar ràkk wër gi ko defee nag nga nga nga yënguwaat nag ñëwaataat mi noonu nag waaw boo ñëwee ci kaaba gi ba wër ko noonu ba noppi nga yëngu ko ñëwaat mi di nga bàyyi ko léegi nag ci nga ñëwaataat nag fanaan si mooy sunu waxtu ñu topp dana sax bu nañ ci minam talaasata ayaam ñetti fan fa isa zalat ngeen rëcc ne asam su jant bi min kul yoomin bépp bis min xaa ci bis yooyu rama mu sànni al jamrata jamra ja allati ja nga xam ne te li dana sësoot minam minam di sappi xasayaat juróom-ñaari jamraay yu kabir dana wax allahu akbar ma xakkul ni xasaat ànd bépp jamraay ñett fan ñu sax minam mais wax na woon la bu fekkoon teel woon tëbës bi maanaam teel fukki la fan daal ndax ñoom ñoo tëbës bi foofa at yi la ñu def fekkoon teel woon fukki ñëw nga kaaba gi boor ko mu tuwaaful ifaada mais fexe fanaan na minam def naa yéen nag suba mooy mooy fukk fukk benn waxtu la fukk ci misaal ñoo misaale kon suba ak gannaaw suba ñaari fan ñooñu moom mënoo ko ñàkk sànni jamra yi bu ci subaa jotee soo boo ñett juróom-ñaar ndax ñett bërëb yu sànnikaay la yoo xam ne benn bu nekk daa am juróom-ñaari xeer yoo fay sànni fa nekk nga sànni fa juróom-ñaari jamra yi ni ñett bërëb ñaari fan ñoo mënoo ko ñàkk sànni moom bu si ñettee bi daal ko leeral ba toogee xaar ba sànni ko baax na bu fekkee bëggee koo xaar bu la neexee teel yooyu waaye ñaari fan yooyu mënatu ko ñàkk sànni jamra yooyu la moom nag moo bari coono ba nga xam ne li ci ëpp xeeti xew-xew yi xañ ci seen bakkan des ci la faral di amee ndax ñu ngi koy bëgg a defandoo ci yenn waxtu suma suma yar ñu topp dana sànni al jamra tey ni yaari jamra ya kulli jamra bépp jamra bu ndik li caali ko ci kenn loolee yooyu kabir te ñu wax allahu akbar ma xakkul li xasaat ànd bépp jamra yëpp jërë bi sànni kaay la foo fay sànni boo ñaari xeer nga fay sànni sànni sànni wax allah akbar te gannaaw boo jëlee ci parle dal mooy jant bi doyet ci jëkk wa yàq si dana taxaw li duxaay ngir ñaan bi isir wa mi ci gannaaw sànni ga sul jamra ci jamra ja al ila ji jëkk ila taan yet ak bu ñaareel ja maanaam sànnikaay bu jëkk bi ñuy woowee jamra bu jëkk ak bu ñaareel ba moom gannaaw boo sànni juróom ñaari xeer yi nga taxaw foofu ñaan ñaan gu yàgg ba nga koy jàng saaru bàqara soo ko mënee loolaa gën ñaan gu yàgg noonu wala yàq fi du taxaw nag inda jamratin xaqaba fa jamray xaqaba wala yoon sarif na wañal bi ko rek jamray xaqaba nee na boo ko sànnee ci ñett fan yooyu bis boo ko sànnee waxtu boo ko sànnee doo fa taxaw di ñaan da ngay jékki-jékki wañal bi ci delluwaat fa nga nekkoon maanaam nag li nga xëy seeni noon ci bis tërs yi doon wala nga bis fukkil bopp xaq ba dong nga sànni woon juróom ñaari xeer door jàll dañ kaaba gi wéri ko tawaaf ifaada waaye ñett fan yi moom da ngay sànni xaqaba sànni waale ñaari jamray ca des ñett bi ñu lay doon aljamratul ula aljamratul wusta ak jamre xaq ba nga xam ne moo ci mujjee nekk ñetteel yi xam ne boo ko sànnee doo fa taxaw di ñaan fa ida rama ndem sànni na fi ñëw ci bis bi ak taalisi bi aji ñetteel waxee te moom raabihi yowmin naxari mooy aji ñeenteel yi sub tabas bi ba im sarafa ñëw bëti ko ilaa màkkati jëm màkk waxat tàmm tamir ma mat na xajji foo ajam nee na boo sànnee ñetti fan ñi ba bis ñetteel ba sànni nga ko si baa jot na ba nga sànni bis ñetteel ba mel ni tey jii may muy waxee noonu talaata la fekk ni moo doon gis fekkeel bi tey ngay fanaan yi nan bu subaa àllarba subaa jotee nga sànni yëpp jamra yi ba ak xëy sayit nii nga sànni ko àjjuma kon mooy doon ñetteel bi tey doon ñeenteel boo tàmbalee wàññi tey talaata mooy boo sànni àjjuma nag kon mooy ñetteel ba moom moo ci mujj sooy boo daal yéen rëbbi ñëw màkk toog fa ba waaj ba jekk daal jollu fa daal jollu fa nga dëkkoon ndax ak ju jeex na sànni jamra yi moo ci mujj wa insha ndoom soob na ko tax jëla mu gaaw fi yow may nit ñaari fan min ay yaal minan ci fane minan faramaate mu sànni wan sadafate mu wëlbati ko nee na bu la neexee nag boo amee ñaari fan ci sànni jamra yi rek nga bañ a xaar bi sa ñetteel ya ni ki misaal ñu joxe woon léegi teel a fukkeel fanaani nga minan suba mu àllarba mënoo ko ñàkk sànni alxames mënoo ko ñàkk sànni waaye boo sànni alxames ba yàkkamti fexeel balaa jant bee sox nga génn minan bala fa jant bi soxee faaw nga war a xaar ajjuma sànni ko bu fekkee ne nag yàkkamti nga nag kon sooy ba daal di gaaw génn génn minan bala jant bi sax da ko alquran waxe fa ta jale fi yawmin fala isma alayhi wa man ta'akhkhara fala isma alayhi liman ittaqa fa idha kharaja dum na mëna génn wi makkata bàyyi ko makka taafa mu wër ñu wa daaxi ñëpp tàggu kaaba gi war a kaxate mu julli ñaar rakk wër ga nee na soo toogee màkk ba nga xam ne léegi waaj nga ba jekk ba ñibbi rek des nga ne wër kaaba gi ne wërub tàggoo wërub tàggoo boobu nag mu wër bu daamee rek lay mel ko defee mu wër ba jeexee itam nga dem julli ñaari rakk wan sarafatu mooy bëgg ko ñibbi mooy daal di mën a ñibbi rek wal umratu umra yàlla dana def yaa ci moom kama zakar naa naka ma tuddee woon awalan ci njëlbeen yaa tamaami saa yi ba ca matum dox bay na safa diggante safa wal marwati ak marwa dafa wax ni umra sunna la sëñ bi nga def ko benn yoon moom itam boo ko ci def benn yoon benn xumra rek su xumra doo defati am naa fi rek la moom la ni ñu aja màkk rek la ñu xumraa xanaa rek aj dafa gën a yàgg aj daa gën a guddi rek waaye ñoo bokkale nañ koy defee ñoo bokkale armal ñoo bokkale wër kaaba ñoo bokkale def safaal marwa waaye nag boo defee safaal marwa rek daal di watu xumra gi moom daal di jeex moo tax mu teg ci suma yaxale ko topp dana wat rasahu boppam waxad tammat mbir moom mat na xumratahu xumraam nga saa yoo xam ne daal armal nga te mooy yéene gi dem wër kaaba gi dox safa ak marwa rek donc xumra moom jeex na nga daal di watu rek su ko defee sa umra jeex na wal xilaaxu watu nag afdalu moo gën fil xaj ci aj wal xumrati ak xumra wa taq ci riwaaye jemb lii di ci dana doy wala yu xasir na jemp it min jami fi shaharihi ci mboolem kawaram bu dee góor moom moo xam dañ ko saa yuñ ko dugalee watu moo xam ci aj la moo xam ci xumra la xamal ne watu woon set moo gën waaye su fekkee dafa jemp itam mu baax waaye kon jemp la ne ko gàttal bu baax a baax te kawar ga gàtt wa sannatu mar at yoonu jigéen ak taqsiru mooy jemp jigéen nag moom du war dootu dem set jigéen moom faaw rek jemp rek lay def waaye du wat kawaram wala ba asa awut an yaqtula bu reyee al muhrimu aj armal al fa'rata janax wal xayata ak jaan wal xaqraba ak jiit wa sibha ay mbiram ñoom wal kalba akub xaj al xaqoora ba dig gëddiwaakon wama ak la nga xam ne yaa adoo dana jalgati dana bi aaju ci ay tilli wa sibaax ak ndeñ ment ndeñ ment mooy rab yi fàdd wa naxwiha ay mbiram ñoom suñu borom dana wax ci alxuraan ne ni يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم من خسي أرمل بلو غي أو ربو ربو رخ في سوف رك دك تي آل رك دي سوف سي رك بو خسي أرمل دوك سنة ري لا ينمي أم هن سوط يو خم ناس نكو ري موي يوم وخني جنخ أجان أجيب أقلب من دي دو تمات أكتل يو خم دي تونيا كا موي تم غاين أين بالي خطر بي فاد يو مم منس يوم ري تدرل كي آي yaqtal bu nga saña rey mën a tawee ci gannaaw yi maa lépp loo xam ne yëpp taqaa def na ragal adaahu loram ñu la xirbaani ci baaxaay yi wal ahdiyat yi ak liccin yi dafa wax ne dana wat ba tey boolem luy naaw ci jaww ji bu fekkee daa amee lor kon mën na koo rey moom mi armal waaye bu fekkee loolu amul lor rek du ko saña rey te fekk mu armal lu ci am lor nag mën ne baaxaay ñuy wax wala liccin yi ak xeet yooyu yëpp mën na koo rey léegi tamit dana teet mooy dana bàyyi te moytu fi xaj yi ci ak ajam wa xumrati ak xumraam am nisaa jigéen maanaam ki xas armal aj mbaa xumra ba keral mu yowugu na moytoo joteeg ka muy séel jote boobu nag su fekkee ne am na bis ba mu armalee ba keral ñu taxaw arafa yi diggante ne aj gi yàqu man taxawee arafa ci guddi googu ba tey bu ko ci defee mu yàqu guddi googu mu taxawee arafa bu setee ci lañu war a def tawaaful ifaada ak sànni jamre xaqaba bis boobu li fi defe ci yow yaar maanaam li fi defe na jamre xaq wa defe na ci wax ifaada ci bis tabaski bi ba tey bu defee jote googu ak gi yàqu su bis boobu xasam jaal nag moom doon ci defedul yaar yooyu itam du tax ak gi yàqu su dee bis bi tam ku ñu def kenn ki li ki def na jamre xaq ba laata ñu def ifaada mu def jote gi ba tey ba tey du tax mu yàqu wat tuuda ak gët gët mooy lat koleñ sa koleñ ni ñaar la dafa am bu ñuy wooyee bu góor ak bu ñuy wooyee bu jigéen nee nañ nag ci waxi ñenn ñi ñu koy firee bu jigéen bi mooy bi nga xam ne boo ko laalee day taq bu baax xeeñ bu baax ci am doole yool ni ki misk ak am barak sanfara kooku moom araam na ci góor araam na ci jigéen bu ko si armal bu ko laalee malamaan lépp lañ bu góor bi nag moom dañu jàpp ni mooy bi nga xam ne xeeñ bi du am doole boo ko laalee lu ñu taq itam bu baax li ñuy wax ward wala jasmine wala rayhaan yooyu nga xam ne moom xet gi amul doole te dina taqa bu baax kooku dañ koy supré moom waaye boo ko defee du am alamaan waaye max yita fiyaa bi ay yuñ ñaw yére yére yuñ ñaw dañ koy aaye góor bi ko si armal jigéen mën na ko sol waaye góor moom bu ko si armal bu solo yére yuñ ñaw rek daañu alamaan war sawid ak rëbb rëbb moo ko waxee woon léegi dafa si armal bu ko sañ moo xam góor na moo xam jigéen la bu ko defee rek am alamaan lay wax soxla maa mérab boobu waxatu la dawa ak bi ak rey daaba ya wa ilqa at tafasi ak dindi ay tilim tilim bu xasee armal na moytoo rey dara ci xeeti daaba yi na moytoo dindi tilim tilim boo xam ne lu sowe bu dee sowe bañ ngaa julli waaye ñoo tax mu dindi ko waaye bu dee ñu ab kër kese rek salte la waaye salte boobu taxul mu doon sowe ba tey du ko tañu dindi wala waxatu du muur ra'sahu wetam fil ihram ci armal ga bu ko fi armal moom góor gi lu sañ a muur boppam day bàyyi boppam muy bopp kese bu ci sañ a muur dara bu ci sañ bu ci muuree dara rek daa dem alamaan wala yaxliqu watu du ko watit moom bopp bi in daroorat dara ngir lor bu ko fi armal ba keram mu yeewu ko lu sañ a wat boppam lu may daa dem mënta ñàkk ni ki ñu xaañ ko ci wala mu gaañu ci bëgg koo wat nag ngir mën koo fajtal su boobaa dana ko sañ a wat فيوش تجي تقدر جتو بصيام ثلاثة أيام في وار نتفن أو إطعام ستة مساكين ولا ليل جرم بين مسكين مدين يار مد لكل مسكين من البيت مسكين دم دم بيت مد ينتبه صلى يال دل تدق الله يال حاله جميع صلى ما تنقل كول أو ينسك ولا مي جامو بشات تبقات يبه هابد من كورندي هاي سشاء فكسوك من البلاد تريوي من اللي يجو آيه يفك يدفنكو لكي وقت جيجي وخ سفك يدفنكو kooku nag mu tay ko bañ ko tayee ci am li ñu wute rek mooy bu ko tëyut moom du am bakkaar te bu ko tayee am bakkaar loolu waaye almaan moom du moom almaan ñett yi mooy taamu ko ci neex woor ñetti fan ko neexee loolu juróom benn miskin miskin mu ne mën na koo jàpp rek kon ab kilo moo na gaaw wala mu jaamoo yàlla ab gàtt boo xam ne fu mu ko rendee baax na yett yi lañ ci taamu rek baax na wa tay dasu dana sañ a sol almar atu jigéen alxufay ni ñaari bot wax ay sang waxtu yàlla ay yóoróom ñaw fi ihraami xaa ci armalam nga wa teg tañu bi dana teet maa si waa jaali ko lu dul loolee mi maa ci lépp loo xam ne yëg tañu bi dana ko teet araju lu góor nee na jigéen nag lu ko si armal dañ koy aaye yëpp yi ñu aaye góor ba mu des nag sol ay bot ak sol yóoróom ñaw yooyu mën na ko yéen dañ koy aaye góor waaye moom jigéen mën na ko wa ihraami mar ati armalu jigéen fi wacci xaa nekk na ci kanamam wa kafay xaa yaari jàngam wa ihraami rajuli armalu góor nag fi wacci yi nekk na ci kanamam wa raasi yi ak boppam dafa wax ne jigéen moom su armalee lu sañoo muur kanamam lu sañoo muur ay tengam day bàyyi kanamam ak ay tengam dañ caa muur dara dara loolu jëflu ci ak armalam mi mu nekk ci yooyu góor nag moom bu armalee daa war a bàyyi boppam muy bopp kese kanamam muy kanamu kese moom it daa jublu dana araam mu sàng dara ci yooyu moo xam guddi la moo xam bëccëg la bu ci sàngee dara rek sàng ngoo xam amal na ko njëriñ rek ñu faral ko tàngaay mbaa sedd rek daal di war a fay alamaan donte fàttee taxit lu tee mu fay alamaan su du sañu sol arrajulu góor alxufeen ñaari bot fil ihraami ci armal nga illa an laa yajida dara ji dafa amut na leen yaari dàll fal yaqtahuma kon na leen dog asfala ñu gën a suufe minal kaambay nit ñaari doyar ya góor moom bu armale ak dañ koy aaye sol ay bot lu may nag amul yeneen dàll amul yeneen dañ ko amoo yeneen kon am nga sañ-sañut dagg dog yi ba mu gàtt ba nga xam ne léegi loolu sax doyar sax day feeñ soo doyar sax day feeñ wal ifraadu ifraad من الإفراد يدل بالحج جاج أفضل موضع إن عندنا في المالك من التمتع في التمتع ومن القران أجل قران لأن بوتها ديوني أت دعم أي خيط خيط يومنا ييني أمنا من يوى إفراد أو من يوى التمتع أو من يوى قران أو من يفقه مالك من إفراد مالك تجنا أمنا فهم يوى إرداف وإرداف من دابل قران موتخ ifraat nag moom mooy nga yéen aji kese def ko nag léegi ba àggal ko doon ci tegee ci xumra it moom doomu ci yamit ñoom bu ne fekk maali moom mooy gën yaar yi ci des yaar yi ci des nag moom daañu ko wax fa man xarana ko xiraan aw tamattax wala mu def tamattu min xëyri ahli màkka te ci lu ñu màkka fa xale yi kon war na ko xadiin am xadiin yasbahu man dana ko rendi aw yan xaruhu wala mu koy loj bi minen ci minan in aw kafahu ndem taxawaloon na ko bi xarafata ci xarafa wa in lam yuqif ndem taxawale ko woon bi xarafata ci xarafa fal yan xarhu kon na ko lojee bi makkata ci makka bi marwata ca marwa bax da an jadduxale ci gannaaw bam liggéey bi ak moom mu neen xibli ci àll ba mu ne àll ba ci xuram gi dafa wax nag boo defee xiraan mbaa tamatu te bokkoo ci waa makka ak lu ko wër dañ lay alamaan am addiyu addiyu nag bu fekkee tel nga koo jiital ba taxawaale ko arafa kon da nga koy rendee ca minam bu fekkee jotoo koo jiital noonu ba taxawam arafa nag kon da nga koy rendee ca makka te fa ñu wax marwa waaye nag bu fekkee màkk nga ko jënde di ko rendi fasaas bi ci maroo te génnoog moom ba ab tànkam laal xilli ji xilli ji mooy àll bi nga xam ne génn xorom ji bu sañoon ab yi ab tànkam day jam ca xilli ji mooy lu bokk te bu ko jëndee bi biir màkk rendi ko fasaas rek kon tànkam laalul xilli ji moo tax mu naa kon bu ko xale di minal xilli fa in lamoo jëndeen amut hadiyan am hadiyi fa siyaamu salaasati ayaamin kon woor ñetti fan fil xaaji ci aj ga yaax ne dafa jublu min waqti yuhrim ci waxtu wa dana armal ilaa yawmi xarafata ba bisu xarafa nee na bu fekkee def nga xiraan mbaa tamatul ñu digaloon la addiyo waaye amoo ko benn gisoo ko ba jënd ko ba amoo njëg gi kon nee na kon nga woor ñetti fan ci biir aj gi te loolu nag jiw nee na mooy waxtu wa nga armale bala ngaa taxaw arafa kon fexeel ba woor ñetti fan fa in faatahu ndem raw na ko zaalika loolu saama kon mu woor ay yaamu minan fani minan wa sabaxatun ak yeneen juróom ñaar isaara jaxandeem jàll na mais bu fekkee jot laa woor ñetti fan ñu waxoon ci laata nga taxaw arafa kon fan yi ngay nekk minan dafa sànni jàll rek da nga koy woor te boo ñibbee dolliwaat ca juróom ñaar ko defee mu nekk fukk lu alxuraan di wax naa tilka xasaratin kaamila wa sifatu tamatuhi melaw tamatuhi nag ay yuhrima mooy mu armal bi xumratin ci xumra su ma yaxil la toog mu yeewiku min xaa ci xumra ga fi ashurin aj yi ci biir weeri aj su ma yaxul ja toog mu aj min xaa ni ci atam mi xam la rëboo ci njëkk dellu ilaa ufuqi yi ba ci goxam ba aw ilaa misli ufuqi yi wala ba ci fu toll ni goxam ba fil boo xam ne cib soriwaay moom nag dafa xaajale wut jëmmi tamat na ci boppam ak sarte yi tax addi war la ga jëmmi tamat na ci boppam mu la ko laajee neel mooy nga xumra nga yéene xumra kese def ko moom dong ba àggal yëngatu ko nag aj waaw loolu moom mooy loolu mooy tawattu tawattu mooy nga yéene xumra kese def ko ba àggal yëngatu ko nag aj lay tax nag alamaan war la ca nag mooy ba ngay nopp ci xumra ga fekk weeri aj yi teru weeri aj nag mooy shawaal korite ak jël xiif ba di jël tabaski ak jël xiif ja weeru tabaski kon bu fekkoon nit da ngaa dem ramadaan màkka daal def xumra waaye ba ngay nopp booba weer ramadaan la jeexagut doon sax bis ko ci mujj waaye jant bi jeexagut te nopp nga ci xumra gi kon yow boo fa toogoon ba aji du tax alamaan war la ndax yow da nga yeewee ko fekk ne weeru aji dugagut mooy fekk ne korite teroogut kon li wax mooy ba ngay noppi ca xumra ga day fekk weeru aji teru ba noppi nag jëpp laa yibbi ba fa nga bàyyi ko woon ba fa nga toll ci soriwaay aj ci xanaa di nga daal toog rek ba aj benn yoon ci at moomu loolu soo ko defee addi war la ca tawatu waaye bu fekkee jot ngaa ñëw ba fa nga bàyyi ko mbaa mu waat aj ci mbaa dina gi foofu waaye dem nga fi ne soree loolu mu waat aj ci wala ngaa bàyyi ba ci déwén si nga xam ne rek bàyyi ñibbi ba ci déwén si nga daal ñëw aj ci yëpp moom addi ma di ci war tawatu ñu ngi ko tuddee noonu la ndax xam nga tawatu mooy bànneexu te xam nga xumra moom daa gàtt boo yónnee xumra nga daal dem rek wër kaaba gi def safa ak marwa ah doo gannaaw bi nga armalee mooy yooyu yéene ji nga daal dem rek wër kaaba def safa mu daal di wàkk mu daal di jeex ko defee nga daal melaat ni ko soo sa yére ñëw sañ yëpp yi nga xam ne loolu la aayewoon ci ba nga armalee te xam nga nag léegi boo dugaale woon foofu armalee ak nag moom ak yooyu yëkkute adduna ci nga nga taxaw arafa wëlbatiku naqawa def tawaaf yu faaga li nga loolu amut dawu na yooyu ko xam nga aay ci armal gis nga ni bareet yëpp da nga koy moytu loolu nag moo tax tawat moom xaw a noppale xéwal la kon ni baat bi firi muy xéwalu ba tey ci dëgg-dëgg moom la moom la ñeel na ci ay yëfrina mu armale min makkati ci màkka in kaana ndox bi xàcc moom màkka waaw nee na nag ndegam na ngaa yéene woon xumra daal di koy def ba àggal nag fekk yaa ngi biir màkka nga fas yéene ak teg ca kon neen bu aajo nga jéem ba ci sa miixam soo boo rek armale ci biir màkka ci boppam biir màkka itam taamul nga dem ba ci jàkka ji ci kaaba ba teewul nag foo armale ci màkk rek mu baax wala yëf na mu du armale min ha ci moom màkka man araada ko bëgg ay yaatamira mu xumra xataa yaxruja ba te mu génnee ilal xilli ba ci àll ba nee na nag boo nekkoon biir màkka moom bëgg armal xumra faaw nga génn lépp li màkka maanaam lépp li xurum ji dañ koy génn ba ci xilli ja mooy fa jëkkul ci xurum ji te mooy xilla ñu ko àll foofu fa ngay armale boora nag wax la bay ko wër si biir biir xorom bi mut si màkk nag war a wër kaaba nga yooyu waaye faaw na génn ba ci àll ba du mën a ñàkk wa sifatul kiraan ni meloo kiraan al yuxrina mooy mu armal bi xajatin ci aj wa xumra xumra maxan boole seen wa yabdaw te muy jëkkee bil xumrati ci xumra ga fii niyatihi ci yéene kiraan mooy itam li baat bi fii rek max naa yu moom la ndax kiraan mooy lëkkale mooy boole te kiraan mooy nga jëkki-jëkki yéene mooy yaar yëpp xiraan mooy itam li baat bi fii rek max naa yu moom la ndax xiraan mooy lëkkale mooy boole te xaraan mooy nga jékki-jékki yéene noo yaar yëpp maanaam ni ki ci benn jotaay nga yéene noo aj ak xumra loolu boo ko defee xiraan la ba tey boo njëkkee yéene xumra kese wala bëtt bi tegaat ci aj ba tey loolu xiraan la waaw da nga dem nag dañu woowee ko irdaaf ndax bu fekkoon ne léegi da ngaa yéene xumra kese dem ci misaal ba tàmbalee jëfi xumra gis nga dem bay def wër ga daal di far yéen ak teg ca waaw su boobaa loolu irdaaf lañ koy tuddee irdaaf waaye irdaaf toxal dañ lay firi waaye xeetu xiraan la noonu nga ko xamee moom lay wax sax naa wa ida ardafa ndeem toxal na alxaj aj ga xalal xumrat ci xumra ga xam la an yatuufa ci njëkk muy wër kaaba ba yartaa te muy julli ñaari rakka foofu kon moom xaari ñu aj xiraan la nee na fi mu toll bu fekkee da ngaa yéene woon xumra léegi nag ni waxee nii moom mooy laata nga wër nga daal di yéene aj teg ca waaw su boobaa kon def nga xiraan waaye jàppal ne da ko waxee noonu rek waaye boo demoon sax doo wër itam ci biir wër ba bool bëti bu yéene ajut fekk wër ga wëru xumra la woon du tee mu doon xiraan day teg rek waaw li ñuy leeral foofu rek mooy bu fekkee dafa dem bay wër wëru umra ba daal di yéene foofu aj dañu wax ne kon loolu du ko tee doon irdaaf su boobaa day war mu daal di àggale wër boobee te def ko wër coobarewu kese te it du dox safa ak marwa teg ca déedéet du dox safa ak marwa ndax moom la ñuy bëgg a leeral léegi saa yoo xam ne def nga xiraan jëfi aj dong ngay def waaye doo beral xumra ak wëram doo ko beral maanaam doo ko beral dox safa ak marwa doo ko beral dara léegi jëfi aj dong ngay def xum léegi nag da nga war a laaj ba am waaw su ma yéene ndoo yaar yëpp aj ak xumra mbaa ma yéene xumra ba nga ko wëlbati ko yéene aj ndax kenn ku nekk daa koy defal ak wëram ak dox safa marwaam ku nekk da nga ko am xam nga ne ndax kenn ku nekk daa koy defal déedéet jenn jëf dong ngay def maanaam boo yéene woon yaar yëpp itam jëfi aj dong ngay def ak yóbbaale xumra waaw saa yoo njëkkee yéene xumra gannaaw bu nga yéene ajut jëfi aj ga dong ngay doxal ko defee muy daal di yóbbaale xumra kon noonu rek la walay sax ala ahli makka te dir ñu war ñuñ makka hadiyun hadiyu fi tamatu hin ci tamatu wala xiraan du jaageenu xiraan nee na nag suñ borom dane zalika liman lam yakun ahluhu xaadiril masjidil xaram kon nag koo xam ne yaa ngi bokk ci makka mbaala ko wër ba defoon xiraan ba tawatu itam du tax addi moom war la kuy dëkkul rek bu ko defee moom la ñu sant addi moom wa man xàlla ku yooyu ko mun xumratihi ci umraam nga xabla ashhuril xajji njëkk weeri aj suma xajja topp ma aj min xaamihi ci atam ma falay sa bi mutamattihin diir mi aji def tamattu daa wax ne koo xam ne fexe nga ba noppi ci xumra gi te weeru korite turoowut gannaaw bi boo toogoon ba aj itam defoo tamattu ndax am def nga li ñuy dul tamattu waaye sart bay tax ñu alamaan la moo ci amul sart bay tax ñu alamaan la mooy ba nga yeewee ko ci xumra ga fekk weeru korite teru rawante ne nga xaar ba korite teru nga door a dem def xumra gi benn yoon mën naa itam nga tàmbali ko ci biir weer ramadan te ba ngay noppi fekk weeri feeñ ci mën doon rek moom sart bay def sart bay tax nga def addu war na la waaye ni waxee nii moom mooy dangaa yooyu ko te fekk weeru korité mu weer aji ni mooy korité mooy weer weeru korité moo ci njëkk ci weer aji te réewul sax kooku moom alamaan di la ci war boo toogee ba aji tam di tax alamaan war la ci ba tey dañ ko waxoon ci gannaaw bu fekk jotul ngaa ñibbi door a aj siwaat ba nga nii fa nga bàyyi ko woon nga delluwaat mbaa fu ne sore ñëwaat acciwaat ci at moom it du tax addi alamaan war la ci muy addi bi boo xaaree ba déwén si nga door acci it noonu wa man asaaba ku jam saydan aw rabbu fa alayhi war na ko jëse awn pay muslima kem la nga xam ne xattala rey na ko mu ne naxaami ci julikat yi yax ko mu dina àtte bi ci moom jawa xaddi leen ñaar ñu borom maandu min fuqaha il muslimina ci way dégg fukki julit ñi nee na bu fekkee jot ngaa rey aw rabbu nag ci bi nga armalee kon nee na dañu alamaan alamaan bi nag benn ñu seet loole raboo nga rey lu xeetoog moom ci julli kër yi julli kër mooy xar bay nag gëléem ñu seet lu ci yelloog moom rek nga rendi loola mu ci alamaan loolu mooy benn bi ba ma xam lu bërëb loolu
waaw loolu nag ñaar ñoo xam ne dégg nañ fiq ci googu wàll am nañu dégg ci googu wàll bu baax a baax ñooy àtte ñooy seet la nga rey daal di àtte la nga war a fay muy alamaan mu tolloog moom ci juri kër yi
wa maxalluhu bërëbu loolee ngay fay alamaan minen mooy minen in waqafa ndeem taxawoon na bii ak moom bi xarafata ci xarafa wa illaa ndeem bu fekkee taxawut ak moom arafa nag fa makka du kon mooy makk way duxul waaye day dugg bii ak moom minal xilli ci àll ba dafa wax ne loolee ñu la alamaan nga war koo rey ndax rey bi nga rey ay rëbb nee na bu fekkee teel nga koo xam ba jiitee ko ba taxaw mu arafa kon da nga koy rendee ca minan bu fekkee nag taxawul ak moom arafa nag moom addi mi kon màkk nga koy rendee waaye bu fekkee màkk nga ko jënd rek say boo nga jàpp ko ñoddi ba dem ba ca xill ja mooy fa nga xam ne bokku ci xorom ni nga wàññi ko mu ñëwaat door ko rende ndax tànkam faaw war naa laal xill ji wala ñëw na ko ay waxtaara mu tànn zalika loolu nee na loolu moom benn alamaan la bu la neexee tànn ko aw kafaara tan wala kafaara te taxaama masaakina mooy ñamu ay miskin te ay yantura mooy mu xool ila qiimati sëy bi jëm ci xayma rëbb wa taxaama ci ñam fayata saddaqa te muy saraxe bi ci moom ba tey nee na bu la neexee nga lele alamaan nga def ko lele te lele mooy dañuy xool loolee nga rey bu seet xaymaam ci ñam mu war a mu xaymaam ci ñëw war a toll ko defee ñëw wutal noonu nga faraxe ko rek mu daal doon saalamaan ba tey loolu baax na aw xabila zalika wala kem loolee siyaaman ci koor te loolu it ay yosoo mu mooy mu war xan kulli mudd walis mépp mudd yow man ab bis wali kafe bi mudd ak ñeel damu mudd yow man bis kaamilan bi aj mat ba tey nee na bu la neexee gannaaw bi seetee la nga rey luy xaymaam ci ñam nga téye saw ñam te woor na ngay woore nag mooy ñam woo wala ñu natt ay mudd lu mudd ya toll rek nga nga woor bis yu toll noonu su amee menn mudd moo xam ne matul na mudd nga waral ko bis bu mat dikki bu fekkee dañoo seet ñaw wa mu nekk juróom-ñaari mudd juróom-ñaari fan ngay woor bu nekkoon na juróom-ñaari mudd xaaj nag te teel nga woor juróom-ñetti fan ndax bis ma su ko xaaj kon bisu bisu bu lan ngay waral mudd yu manqué wal xumratu xumra sunnatun sunna la mu akkadatum suñ suñ feddali maratan wan yoon til xumra ci dund doo nañ ko wax ci gannaaw umra sunna su dëgër soo xam ne bëgg nañ nga def ko benn yoon ci sa dund boo ko see def benn yoon nag sunna si jàll na benn boo defaat dañ koo sopp rek sopp nañ ne boo ko mënee at mën nga def ko benn yoon wa yustahab bu def na sopp li mën ñeel koo xam ne in sarafa walbatiku na min màkkati tukkee màkk min hajjin tukkee ci aj aw xumrat wala xumra ay yaqoo la mu wax ne aayiboona way dellu lanu taayiboona te way tuub lanu aabidoona te way jaamu lanu li rabbina ñeel sunu borom xaamidoona te way sant lanu ko sadaqa dëgëral na allahu yàlla wax dahoo digam ba wa nafara te mu dimbale ab dahoo jaamam ba te muy muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa xasama te mu màbbu mooy te mu te mu dàq al ahsaaba kuréli yéefar ya wax dahoo moom rek saa yoo xam ne dem nga màkka def xumra ba aj ba wàññi ko bëgg nañ nga wax ñaan gi sant yàlla ne nu ndey noo ngi dellu ci yàlla di ko tuubal di ko jaamu di ko sant loolu digal yonent bi day moog ay gaayam ne ko la tadxulunna al masjid al xaraama insha allahu aminina muxalliqina ruusakum wa muqassirina la taxaafoona nga yonent bi génne woon nañ ko màkk nañ ko nañ ko xamee ci siira gannaaw ba mu ñëwaat bëgg faa dugg ñu wëlbatiku wëññiwaat ko yàlla digal ko ne ko yaag say saxaaba da ngeen ñëw ci kaaba gi def fa seeni jaamu yàlla ne ngeen ko bëggee te dal du ngeen tiit dara leen xooqatal nga ne loolu yàlla digal yonent bi day sottal na ko ndax man mii bokk ci xeetam sax loolu tey ji def naa ko amee ko noonee ko yàlla waxe woon kon loolu mooy sadaqallahu waxda yàlla dimbali ne yonent bi dàq kuréelu yëfar yëpp baabun li ab bunt la fit daxaayaa ci tabaski yi wa daraa yi ak rendi ya kon yéen a rendi wal xaqiqati ak gàttuk tudd wal saydi ak rëbbu wal xitaani ak làkku làkku nag mooy baat wala bu yàgg bi waaye mooy xaraf xaraf daal lañ ko ëpp wax léegi wama ak la nga xam ne yaxrumu dana araam minal atximati ci ay ñam wal ashribati ak ay naan dafa wax ne bunt bi yooyu la ci bëgg a wax mbirum tabaskeeg rendeeg gàttub tuddëg rëbboog ñu wax xaraf ak li araam ci lekk ak naan waaye daa mel ni moom li araam ci lekk rek lay wax yenn yi waaye naan moom mel na ne dutu caa tudd dara wal udxiyatu tabaski sunnatun sunna la waajibatun sudu suñu feddali xalaaman ci képp koo xam ne istataaxa mën na ko tabaski moom nee na ku ko man sunna la su dëgër doon di sax gone la ku ko man nag mooy koo xam ne njëb njëbuk tabaski ma bu ko aajoowaat ci dundu boppam ba dundu njabootam ba nga xam ne mooy dund ba far su fekkee ne at mi yépp dana ci aajowaat njabootu tabaski ma rek ci dundu boppam ba dundu njabootam ba koddaayul boppam ba koddaayul njabootam koddaay la nga xam ne lu war la mbaa dund ba nga xam ne lu war la fekkee dana ko ci aajowaat rek nga xam ne kon bug man moo ko togg moo ko toggoo def ko rek waaye kon bug man wa aqal lu maa gën jaa néew li nga xam ne yu ci dana doy fii haa ci tabaski minal asnaani ci ay maas ay maas mooy ci tolluwaay at al jafaaw mooy jafaaw manat ba ani ci xar nee na bu dee xar ngay tabaski moom lu néew néew manat jafaaw jafaaw nag ko xoo moom ibnu sanatin mooy doomi at bu fekkee xar ngay tabaski daal moom bu amee at rek baax na donte sax lam dugg ci atum ñaar yi moo weesoo dugg ko néew néew nit ki benn fan baa ñaar it doy na وقيل وخيسنا ابن ثمانية أشهر دومي جرمية وير وقيل وخيسنا ابن عشرة أشهر دومي فكير daal ñu wax ne boo dee tabaski xar bu amee juróom-ñetti weer rek baax na am ñu ne bu amee fukki weer baax na waaye daal jàppal wax yi ñu njëkk wax rek te it daa doon aada ci réew yi ba nga xam ne moom ñu bari ruus nañu jéeg maanaam bañ a tabaski ba tax na luñ amee tabaski waaye loolu mat naa moytu ndax mel na ne ku ci def ak farlu moom tàmbali ko wut ba at mi teroo balaa tabaski ñëwaat rek nga am ci mu baax a baax waaye nag ñu war dañ koy sàggane ba nag buñ ci àggee dañ ko mën a ñàkk def su ko defee bu ñu ko defee rek baax na ñu fàttali itam ne ajuwul rek ci borom kër donte ki amul kër donte gone la wala yow am amoo kër rek sunna la ci yow nga def ko soo ko mënee ci tuyaa ba juree ji ci diw itam jar na ko waaye fi dañoo aadal daanaka ku amul kër rek doo tabaski daanaka wattan yi ak te mooy fenn yu nel maasi ci bay waxuma moom maa mooy ba nga xam ne aw faa matal na sanatan at war daxale te nga dugg fi saaneet ci moom ñaareel ma bu fekkee bay ngay tabaski nag moom lu néew néew na am at ba dugg ci moom ñaareel ma te it tey doon dugg gu baax mu ne at ak mel ne day am at ak weer ñaari weer maa di dugg ci atum ñaareel ma daal weer jëm ñaari weer wala yu gisoon day seet daxaaya ci tabaski yi nel maasi ci bay wal baqari ak nag wal ibli ak gëléem illa taniyu ndari taniyu nee na boo dee tabaskee bëy wala nag wala gëléem faaw mat taniyu fekk na xamaloon na la ba noppi taniyu ci bëy da ko sifili waate yaar yi rek waaye taniyu ci bëy xam na ko léegi moom mooy bu am at ba dugg ci moom ñaareel ma dugg ku baax ni ko weer wala ñaari weer doon la xamal na léegi bu dee nag moom wala bu dee gëléem lu war a doon wattani taniyu mooy baqari ci nag maa mooy ba nga xam ne daxal dugg na fi sanati ci at ma arraabixati mooy aju ñeenteel wattani taniyu tamit min ijli ci gëleem ibnu sitti siniina mooy doomu juróom benn at maanaam bu fekkee nag nga bëgg a tabaskee lu néew néew na am ñetti at ba dugg ci moom ñeenteel ma bu fekkee ni gëleem nga bëgg a tabaskee nag na am juróomi at ba dugg ci moom juróom benneel ma wa fu xoolul ba ami koy xar yi fi daxaayaa ci tabaski yi af jëli ñoo gën min xisiyaanihaa ci seeni tàppanga wa xisiyaanuhaa seeni tàppanga it afdalu ñoo gën min inaasihaa ci seeni jigéen wa inaasihaa seeni jigéen it afdalu ñoo gën min bugóoril maxasi ci góori bay yi wa min inaasihaa ak seeni jigéen moo bëgg wax ne ne boo tabaski moom lépp loo tabaski xara ci gën xaritam ma nga xam ne kenn topp ko bu fekkee ne tàppanga ma gën a koo duuf nga xam ne ñoo yemoo rek wala far sax moom miñ toppit moo gën a duuf su boobaa moom miñ toppit mooy gën su fekkee miñ topp dafa gën a duuf nag tàppaa nga mu doo koo gën waaye bu ñu yemee képp miñ toppitee gën rawante ne nag bu fekkee ne miñ toppit far daa gën boole ci daa gën a duuf boole ci boo weesoo nag góoru xar nga xam ne weesu nga bañ tàppal biñ toppit boo waxatoo ci dara say boo dem ci jigéen ja xar mu jigéen fii mu nekk moo gën bayu góor nga gën a yéem xar mu jigéen a ko gën su fekkee xar nag moom tëmal la ba nit laa tabaski xar nag ci bay rek nga ñëw bay te wu góor waay gën wóoroo itam la ñu topput mooy gën la ñu topp bu fekkee ne ñoo yemoo rek wala far sax la ñu topput gën a buuf moo tax mën a awa foofu maa si kuy bay afdalu ñoo gën min inaafihaa ci seeni jigéen kon bayu góor moo gën a jigéen wa inaafil maa si jigéen ñi bay itam afdalu ñoo gën min al ibli ci gëléem yi wala baqari ak nay fi daxaayaa ci tabaski yi maanaam bayu jigéen moo gën a suufe ci gàtt waaye foofu mu nekk bayu jigéen nga tabaskee ko moo nga tabaskee gëléem baa nga tabaskee nag ndax tabaski moom la gën a baaxu yàpp lañ cey taamu te xam nga jur bu ndaw gi mel ne xarak bay daa gën a baaxu yàpp nag ak gëléem wala moo tax kon moo tax ngay tabaski moom nga tabaskee bayu jigéen la muy yama yama xëy na ci sa bët moo gën nga tëbëskee nag te la gëlee mu des nag bu dee addi yi addi yi mooy la ñu rendi fa makka ak minan te xam nga ne foofu moom lekk dafa jafe woon xam ne foofu kon lu yàpp woo gën a bari rek lañ ciy gën a taamu moo tax nag bu dee foofu moom nga lay bëgg a wax wa amma fi wa amma fi hadaya daal ci addi yi fal iblu gëleem ya afdalu moo gën tumal baqaru topp na ya tumal ba am topp xar tumal maasu topp bay la ñu rendi fa makka ak minan moom bari yàpp wala ñu ciy seet su boobaa nag kon gëleem moo gën ndax moo ëpp yàpp su jàllee nag topp ci bu jàllee xar topp ci su jàllee nag bay door a sës ci gannaaw wala yuusu jëgan fi shay ci dara min zaalika ci loolee xawraaw aji pat lépp loo tëbaskee na nga ci moytu mu pat xamal ne lu ñu jaamu yàlla la du rek yaay seet ba la neex bu fekkee ne xas na pat rek loo du lay tëbaski wala maridat di jaagoon aji tawat bu tawatee tawat joo xam ne bu ànd jur gi nga xamee ko ci waaw su boobaa du doy bu fekkee tawat gi ñàkk solo nga xam ne nag ni muy soppandikoo daanaka mboobu doo ko xamee ci jur gi nag waaw kooku su ko ñàkkan tawat bi lay gën waaye du ko tee doy moom walal xar jaaw di caa gën aji làggi al bayinu ji aji bir dalaxuhaa sooxam nga bu fekkee dafa làggi te na muy sooxe daa fis ba nga xam ne bu àndee jur gi sax nga seen na muy sooxe kooku du doy walal xaji faaw di caa gën aji làpp làpp mooy yooy allati ba nga xam ne laa chexma déet nebon déet grees fiiha muy nekk ci moom fiiha muy nekk ci moom maanaam bu yooyee yooyu boo xam ne amul grees bay waay ba ëpp ba tey du doyat tabaski wa yuttaqa def na wattaniku fiiha ci tabaski alxay bu sikk kulluhu léppam nee na lépp loo xam ne xeetu sikk la rek na nga ko ci moytu sikk yi ne yaar la am na sikk yu koy tee doy am na sikk yoo xam ne bu ko tee doy sax waaye gënu ca su boobaa nag nga fexe ba taam rek bi amul benn benn sikk morom wala lu mex xooxatul umani du caajoonu bu ñu xar ab nopp illa an yakkoon rek la fa nekk moom xar-xar ba yasiran di aji tuuti di aji néew la bu nopp xaree bu baax lu may xar ga bañ a bari xar ga bañ a bari nag mooy boo ko defee ñetti xaaj la ci xar benn xaaj la ciy tollol mbaa sax du ko mat maanaam ceer ba rek xar mbaa sax matul ceer ba su boobaa muy jégale ko bu ko ëppee rek dañ ko jégale boo ko faari ka naka noonu alxat xu dagg ga bu fekkee nopp ba dañ koo njoof njoof mooy dagg rek dañuy seet lañ ca dagg bu fekkee ne ceer ba lay tollol mbaa matul ceer ba sax loolu jégale nañ ko bu ko ëppee du doy waaye nag xeeratul xar ni bu ñu damm béjjéen in kaana ndem nekk na yuddu mi di nàcc falaa yu joos kon du dagan way lam yuddu mi ndem nàccit fa jaalika loolee jaay sun aji dagan la li waxe bu ko jàpp dafa wax ne bu béjjéen ba dammee te muy nàcc du doy te kenn bu nàccut dal nay baax des ko jàpp noonu dañuy jàpp ne bu béjjéen ba dammee waaye teew wér na rek dal nay baax su fekkee nàccul waaye taxu ko wér nag du ko tax a baax kon waxi na ñu waxee bu ko jàpp noonu naat gaa naatu lay day aajoo mu wér boole ci bu xasee bu xasee wér rek baax na loolu yëli na méngoo mooy na féetewoo arrajo bi waa ji dab xa ubb xi yett xi rendi tebeskeem ma bi yedd xi ci loxoom bax da dab xil imaam ci gannaaw rendi ilimaan ba aw naxari xi wala lajam yow man naxari ci bisub laj ba mooy ci bisub tabaski ba bax watan ci yoor yoo lañ gën a taamu mooy sam tabaski nga lañ koo rendi loo kenn te rendi la ko sa bopp waaw loolu nag kon ngay bàyyi ba ilimaan rendi wala bu fekkee loj la nga bàyyi ba mu loj daañoo wax lu loj incha allah bis tabaski bi daal ngay bàyyi ba ilimaan rendi bu fekkee ne nag njëkk nga ko rendi li bëgg a wax wa man dabaxa ku rendi xabla an yabdaxa ci njëkk muy rendi alimaamu ilimaan ba wala yan xara wala muy loj ahaada kon baamu ubu xiyataxoo tabaskeel ma nee na boo njëkkee rendi ilimaan te fekk na ilimaan yóbbaale woon na am xaram ci jullikaay ba kooku boo ko njëkkee rendi moom doo am tabaski bu fekkee ilimaan yóbbaale woon xaram nag ku ñibbi ba toog ba tolloo ni daal ilimaan war naa ñibbi ba rendi nga daal di rendi daal nay baax gannaaw bu ñu gisoon nga jiitu ko it yooyu jamono moom dara nekk ci waaye bu ilimaan xasee génn tabaski moom faaw nga xaar ba mu rendi boo ko njëkkee rendi rek ñu koy ñoom ñi nga xam ne laa imaama ñet ilimaan lahum di leen ñeel falwata xarraw nañu nattale salaata aqrabil a'immati jullit gën jaay jóge ilimaan ya ilayhim jëm ci ñoom wa dabxahu aku rendem bu fekkee ne ñooñu amuñu ilimaan te jar ñu yónnee ci dëkk bu am ilimaan mbaa dara dañu toog fañ toog rek tolloole ba ne dëkk sàngam moo la gën a jege te ku fa dem ilimaan ja war naa jëli warandi buñ tolloole loolu ba noppi rek ne ilimaan sàngam daal moo la gën a jege ku fa dem war naa rendi sooy ba ñoom ñu rendi gannaaw ba ba ñu gisee ne kenn rom fu ne ah bu ndee fa laa bàyyi ko waaye rendi bi doon xam ne kon jiitu nañ ko su boobaa du ci wàññi dara dañu waxoon def nañ ko rek seen jaan wàcc na ومن ضحى كتبسكي بليل تجدي أو أهدى ولا محدي لم يشير كدي عانينا كو خامي دفا رندي أم تبسكيم تجدي جي بام رندي أم حديوم تجدي جي دبي
waaw dafa bëgg leeral foofu ne rendi gi tabaski mi rendi gi tabaski mi wala addiyu mi dañ ciy sart mu def ko ci bëccëg waaye bu ko defee ci guddi gi moom du doy su fekkee bis bu njëkk bi la moom bëccëg bi mi ngi tàmbalee ci fa ilimaan rendee ba noppi wala bu wala bu dee kuy tolloole ba mu tolloolee ne ilimaan rend na ba noppi kooku moom foofu la bëccëg bi tàmbalee bu fekkee du bis maanaam bu fekkee ne bis bu njëkk bi la soo weesoo bis bu njëkk bi nag moom yi bisu ñaareel bi bisu ñetteel bi am na jàppandi maanaam su fajar xasee fenk rek jàpp nañ ne bëccëg bi dugg na te tàmbalee fajar fenke ba jant bi so foofu rendee rek mu doy waaye ba tey nag foofu itam boo rendi woon ci fajar duñ ko taamu lañ gën a taamu mooy nga bàyyi bu waxtu daganul naafila bu yoor yoor nga xam naafila dagan na daal boo waxtu lañ gën a taamu moom itam bu dee ci bisu ñaareel bi ak bisu ñetteel bi
wa ayyaamu naxri bisi la ji la neexee bisi tabaski yi talaafat ñett la yi bu baxu def na rend fiihaa ci ñoom aw wan xaar wala defi laj ilaa xurubi samsi ba soxul jant mi aaxirihaa ci aju mujj seen tabaski nee na ñetti fan la ñetti fan ñi boo ci rend rek am nga tabaski mooy bis bi fukkeel ak bis ba ca topp neef ko benn ak bis ba ca toppaar neef ko ñaar ñetti fan ñooñu mooy ñetti fan yi tabaski boo ci rend rek ba kira jant bay sox ci bis ba ca mujj baax wa afdalu ayyaamu naxri ngën ji bisi la ji awoluha mooy aji jëkk seen awoluha nee na ñetti fan ñooñu kat ba ci jëkk nga renn ci néegam waaw renn ci bis bu jëkk bi moom moo ëpp tuyaa bu moo wan boo ko mënee doo bàyyi mu raw la wa man faataxoo koo xam ne raw na ko ak dab fa ren bi ful yoon ci bis ba al awali ba jëkk ila sawaali ba tisbaar faqat qaala wax na bax bu ahlil xilmi la nit ñun xam-xam na yustax bu def na sopp lu xëñal ko ay yasbira mi muñ ilaa bu xal yow mi ba yor yooru bis ba ak taan yi ba ñaareel dafa wax ne bu fekkee ne bis bu njëkk bi rendewoo ci ba far tisbaar jot mën naa am suñ toog tisbaar réer mbaa dañ ko ëmbutoon ba boobu waaye daal tisbaar jot na fa rendewoo kon nee na lenn ci borom xam-xam yi te ibnu xabib la ci jëlu daa wax ne woon bu sañoon nga bàyyi ba ci ëllëg sa ci yor yor ba bisu ñaareel ba nga door a rendi te bañ a rendi ci la bis ci bis ba ci bis bu njëkk bi waaye wax boobu ko jàpp lay sukkandikoo mooy rendi ci bis bu jëkk bi moom doon di tëkk sànn it moo gën xaar bi ci ëllëg sa ci bisu ñaareel ya wax jooju des ko jàpp wala bu baaxu deful jaay fi um dara mu ëllëg ci am tabaski jël dul moo xam ab dara la wala xëyruxoo di caagin lu dul dara tabaski yooyu nañu jàpp ne lu ñuy jaamoo yàlla la mooyoo ci dara ba di ko jaay maanaam suñu laa jaay dara ba suñu laa jaay dara lu ci bokk mën naa dem sax ba ci nga xam ne moo daa fees ni ko koy jox tey boo koy fees loo danga koy jox xaalis mbaa leneen te bañ koo fayee ci jëmmi tabaski bi boo ko fayee ba noppi nag xaalis la neexee moom bu aajoo sarax mën nga ko sarax ngir yàlla moom waaye daal daal diis ko fay moom ci ren dim ko fees daal diis ko fay moom waxtu waj jëfu def na jubale ak bët yi xetu la ñuy ren bi xindal bët fi fa ren ba ilal xiblati mu jëm xibla sopp nañ li ngay ren bi nga tëral ko mu jëm xibla wal yaqul dana wax ak daadifu aji ren ja na bismillahi wallahu akbar tudd bi tur yàlla ma mënta ñàkk bu fekkee ne moo ko tey teewu ko wax ji gën a wóor dina ko wax lay des ko lekk wallahu akbar jenn ci la sopp ji dellu waaw mu wax bismillahi wallahu akbar joojee ci la sopp ngay dellu wa in zaada ngeen dolli na fil ubuhiyati ci tabaski ma ne rabbana yow suñu borom taqabbal yàlla na nga nangu ni naa ci ñun fala ba asa kon déetu ay bisaalika ci loolee nee na bu dee tabaski ba nga waxee bismillahi wallahu akbar nga dolli ci rabbana taqabbal minna mooy ñaan yàlla nangul la ko ne kon loolu li ñu sopp la def nga li ñu sopp wa man na see ku fàtte at tasmiyatu wax bismillah fi dabhi ubuhiyatin ci rendi am tabaski aw xëyriha wala bisu tabaski fa indaha naka yum tuukalu def na ko lekk boo dee ren di fàtte wax bisimillahi ba waxoo ko moo xam tabaski la moo xam leneen la def na ko lekk wa in taxam ma dem tay na tarkat tasmiyati bàyyi wax bisimillahi lam tuukal def ko lekk wax ji dana woon ci fiq maal mooy loolu mi ngi nekk ñëpp julit boo ko fàttee tey ko waxoo bisimillahi bi ngay ren di des ko lekk wa kazalika naka noonu xinda irsaalil jawaarihi fa yabal jamkat ya ala saydi ci rabboo maanaam boo yebal xaj bi wala daal la nga amee di rabboo moom boo ko dee yebal ci rab yi bëgg mu jàppal la ko da nga koy téye sa loxo ba am ku la ko téyel sa loxo ba nga séen rab bi nga ko bëgg a yebal nga daal di wax bismillah yebal ko nag waaye bu fekkee na nga fàttee wax bismillah yi bu ko jàppee des na ko lekk boo ko tey waxoo bismillah yi des ko lekk bu fekkee da ngay sànni itam fet mbaa balu fatal ni ñuy rëbboo léegi itam ñoo ci yemoo bu fekkee fàttee ngaa wax bismillah yi fàtte rek la ma tey nga wax bismillah yi des na ko lekk boo ko tey waxoo ko des ko lekk wala bu baax deful jaay minal udhiyat ci tabaski wal xaqiyati ak gàttug tubb wal nusaki ak gàttug jaamu laxmun aw yàpp wala jëldin di caageenu ak der wala wadekun di caageenu nekk nekk gerees la ba tey wala xasabun di caageenu caas wala xëyru zaalika di caageenu bu loolu nee na nag gàttug tabaski ak gàttug ñu tudde doom ak gàttug jaamu mu ne gàttug xaddiyu ñu ne boobee ñu la alamaanoon nga fay ko ca xanañ ko ci aj ñu ne moom nee na moom sañoo caa jaay dara dara ndax lu ñu jaamu yàlla la doo ci jaay yàpp du der ba du gërees ga du caas ga du leneen gis nga nag loolu sax ñuy joxe ci bu ñu ngénte dañu jox ka ko doon faj ci hôpital mbaa ka ko doon doom yi dem neen sax dañ koy aaye yooyu yëpp bu fekkee ak fay ak fay la rek daal di koy aaye suñu su ko woon waaye xamal nañ ko fi moom ci wala fi daanaka mënees ko neexutu dindi ويأكل من سملك الرجل واجه من أضحيته تبسكين ويتصدق تم يسرخ من هاجمون أفضل ما من له ملك وليس بواجب بأجور عليه جوه تبسكين من نبي صلى الله عليه وسلم لكتي سرخيتي جهت أدية سرخيهم مولي هنم ريال لاتخ أدية نومي جن جو لاتخ كي سرخ نومي تيال لاتخ بران كرين تخ مسن سرخ كوا أدية جنون لاتخ نجحكي لين لجوكتك لين لجال لجوكتو يالله kon nga jël yett yett moo ci gën waaye nag bu la neexee bay bu la neexee lépp lépp bu la neexee sarax lépp bu la neexee joxe di lépp waaye jël yett yett waaye jël yett yett daal ma wëñ wala yakulu du lekk min fityatil aza ci jotaw lor jotaw lor mooy ni laa waxoon ne la soo almalee amoon la aaye soo loroon nag ba tax nga def loolu ñu la aaye woon alamaan ma la waxoon rendi ko da bokkoon loolu lay wax naa boo ko rendee doo ca lekk loolu nga xam na nga ko rendi ngir jotoog lor bi nga lor woon ba def la war def te ba nga armalee loolu doo ko sañ a lekk wa jësa i seydi ak payub rabbu xam nga itam dañ la aay woon boo xasee armal ba kera nga yeewu ko rëbb maanaam rey aw rab woo xam ne day dox ci suuf si daa dëkk ci suuf si dëkk ci géej bu dee géej mi mën nga koo rey waaye rab woo xam daa dëkk ci suuf si moom boo fi armal ba kera nga yowee ko boo ko sañ a rey boo ko reyee nag amoon na alamaan te bokkoon na ci alamaan ma nga rendi lu yem ak moom ci juri kër yi loolu la wax ni moom it doo ca lekk boo ko rendi doo ca lekk wa nasril masaakiini ak nasarab miskiin yi miskiin yi mooy ñu amul dara boo boo nasaree rendil leen dara nag bu fekkee mu ràññeeloo ko da nga ne misaal naa miskin rek rendil leen waaye da nga leen rendil ràññeeloo ko moom mooy xar mi mbaa bëy yi mbaa naw yi mbaa gëléem yi waaw kooku bu fekkee ne xas na àgg fañ koy rendee moom jeex na doo ko sañ a lekkati waaw te loolu ma wax sax mooy bu fekkee doo misaal boo xam ne ràññeeloo ko da nga rek misaal naa rendil leen waaye boo ko fasee ràññeel ne lii moom doo ko mën a lekkati benn yoon moom mu àgg ci bërëb ba mu jëm ak ñàkk ci àgg yam ñoo ci am doo ci mën a lekkati wooma ak la nga xam ne xàpp ba alku na min hadiyi tatawu yi ci addiyam coobarewu xam la maxalli yi ci njëkk bërëbam ba addiyam coobarewu mooy addiya moo xam ne waralu ci genn wet bu alamaan bu dara te it mu faroo ko woon ci la war daa am loo jiital rek coobarewu rendil ko miskin yi jëmale ko fa nga ko war a rendee àgg goo nag mën na la dee ci diggante bi nga rendi ko kooku da ngay bàyyi nga fi nekkoon rek lekk waaye yow doo lekk ndax boo ci lekkee day mel ne kon séyéni daa seelut boo ci lekkee day mel ne kon séyéni da caa seelut mais moom bu xasan àgg ba fa nga xam ne fa lay jëm sax moom mën nga caa lekk waaye nag bu àggoo ci béréb bi daal far nga rendi ko ah su boobaa da ngay bàyyi nga fi nekkoon lekk rek te nga jéggeew jàll waaye yow bul lekk waaye akul dana lekk nag min maa si waa zalika ci lu dul loolu insha andeem soob na ko nee nee na ñu la wax rek ci nga sañte lekk waaye yu bokk te yooyu rek mën nga caa lekk li ko bu dee addiyum xiraan mbaa addiyum tamatu
mbaa gépp addi goo xam ne wàññi goo wàññi ci wari gari aji moo ko waral yépp rek mën nga cee lekk mu ñëw nag ci dëgg-dëgg ren bi wa zakaatu dëgg-dëgg ren bi xat xul xul xoomi mooy dagg ba liga xat xul xul xoomi mooy dagg ba liga wal awdaaji ak waaru sati ñu ko seq wal wada jawmi sax mooy yelloon da ko jant def ay daaj mu ni mbooloo ay yaa rek la dañu dëgg dëgg ren ci lislaam moom mooy ngay dagg ba ligi waaru sati yi nga xam ne ñoo ko seq mais téye ba ke dagg ba jeex rek loolu ren ci lislaam ñu fekk te loolu rek dangay waaw nit sax ren bi xewlee nga xam ne daanaka réew tamit mu sax moo fa am boo demee dëkk taax yi day am machine boo xam ne doo ñëw rek daal mu ñëw daal di këtt boppam tàggale boppam jëmm ji ñu tàqali ko loolu ba tool gisuñu te dëgg nag gisuñu lu ko war a tax a dagat waaye daanaka boo dem ci réew tamit yëpp sax xar moo fa am wala yi di sawdu day aqal na lu wees nañ taari ko ci loolee maanaam boo doon dagg nag te yooyu yëpp daggul ba set li fi nga tàmbali dagg ba liggéey rek mbaa nga tàmbali dagg sëbi bi waaye taxul yëpp dagg ba set kooku te tax mu doy moo dee su ko sañ a lekk ndax ren bi moo koy tax a dagan te kon ren bi matut wa in rafaxa ñoom yëkkati ne yedda foo loxoom baax da xattaxi baax du taalika ci gannaaw dagg lenn loolee sunu ahaara topp ne baax du yedda foo loxoom fa ajji sa sa te mu jettali ko fa laa tu ko kon dee foo lekk dafa wax ne boo tàmbalee ren bi nag ba nga xam ne léegi ren bi bu sori na nga xam ne boo bàyyi woon moom day dee kooku boo yëkkatee sa loxo te gaaw laa delluwaat ñëpp maasi na ci ne ren bi ba yàqu na métti la su fekkee gaaw ngaa delluwaat nag moom dana baax loolu wax ma gën a wóor su fekkee ren bi ba soriwutoon tam nga xam ne soo ko bàyyi woon day doon booy kooku moom boo yeexee ñëwit du ko tee baax waaye nag boo ñëwaat lu yéenewaat yéene ji yees waxaat bisimilah tàmbalee ren bi ndax la nga defoon gaañ ko dong la kon noonu mooy teqale bi waaye daal li wër moom mooy bu fekkee sori woon nga ci ren bi nga xam ne soo bàyyi woon day dee boo yëgal sa loxo ba noppi yéex a jël si waaw kooku moom wax ji gën a wër marché nañ ci ne moom wëdd lay doon boo gaawee jël si moom dana baax fa intanaa daal ni yéene xata xatax ba mu dagg ara sa bopp asa ak kon ñaawal na teg yin wal tukkal waaye na lay teef ko maanaam boo dee ren bi fa nga diwaloon fa nga tàmbalee di dagg boo ci bële wéeg sa diir yi waaye dangaa dëgg yow ba mu jeex lay lay xees xeesal diir rek far ba tàggale boobu beeg baat bi loolu baax na waaye dangaa ñaawal teggin mooy tàqale nga tàqale boobu beeg baat bi ëppan naa def def nga lu sub waaye du yàq dara du ñu lekk ko waman tabaxa ku ren bi mënal xafaa ci doq lam tukkal deefu ko lekk maanaam boo ko rendee tàmbalee ko ca doq ga donte demoon nga ba mu dee mbaa ñëw nga sax ba xattali ko ba dagg ba liggéey sëbi ji du wata a baax li baax ci ren bi rek moom mooy nga tàmbalee fi nga war a tàmbalee ci bëlu gi rek ak ci koor ba mu dagg wal baqara nay togg baaxu dees na leen rendi fa in maxirat ndem la dees na leen ëkkilat kon la teef leen nang moom dañ may digal ñu rendi ko te bañ koo loj bu tee nag moom nangu na loj ba tey buñ ko lojee du tee ñu lekk ko loj nag moom mooy daa am jumtukaay buñ koy defee boo xam na nga koy jam ci xóot xóot bi ci dënn wi soo bësee ba mu laal xol ba rek mu daal di dee loolu mooy loj loj moom ñoo ko la buy jam ci xóot xóot bi ci dënn bi rek ba mu dem ba laal xol ba kooku nag nag moom mënees na koo def yaar yëpp mënees na koo rend mënees na koo loj moo tax mu ne ñun ñoo dugal rend bi rend bi ci gën waaye boo ko lojee itam du ñu lekk ko waj udalu gënoon it tan xaru des na leen loj fa in boobu xat ndéem ren def na leen lam tukkal defu leen lekk maanaam gënoon nañ man dañ ñoo digal wag gi bu fekkee da nga koo rendi te mën nga koo lekk moom desu ko lekk nee na sax teg na ci waxa duxtu bi fa wooteef na fii ak lixaa cig lekkam wooteef na cig lekkam waaye wax ci gën a wér daal mooy bu fekkee jumtukaay lekk am na fa ñu bàyyi ko bañ koo lekk xam nga mënees naa def ndigal lu defuñu ko kooku desu ko lekk mu gën a wóor bu fekkoon ne gëlëm ko daa daanoon foo xam ne mënees koo loj nag rey mi rek lañ ko mën a def tax ñu rendi ko nag waaw su boobaa kon moom dina baax wala xam ne mu gàtt yi mooy xaral bay togg baaxu defu leen di rendi fa in mu xirat ndem lojeef na leen lam tu ukkal defu leen lekk xaral bay dañu doon ñoo jox ndigalu rendi leen maase nañ ci ne moom boo leen lojee loj boo xam ne sa coobar dong la deesu ko lekk muy xaram yi bay ba tey moom bu daanoon ci mpax mënees koo rendi moo tax nga laaj ko ba tey moom des na ko lekk teg na ci ne wax ndax tudd fa teef na ay dana ba tey fii daal ci loolee waaye jàppaluñ la wax rek mooy li gën a wóor wa bakaatu ma rendi la nga xam ne fil bat ni nekk na ci biir bakaatu ummi yi mooy rendi ndeyam ja ida tàmm ndee mat na xal ko foo dundam wa nabata te sax chaaru koo kawaram la nekk ci biir bi ay gudd yu doogut loolu bu fekkee ne dañoo rendi yaay ja dañ ko feesee ñu génne ko nag moom la nekkoon ci biir ba waaye fekk na ni ko yàlla bindee bind ba mat na sëkk kawar ga itam saxoon na ba noppi ñu fekk ko mu dee ci biir yaay ji nag lu tee mënees na koo lekk ba ñu rend yaay ji day mel ne rend waale nañ ko rendi ko ñu rend yaay ji rek moo wàcc ci aw rendeem moo tax taxawaayu rendeem su fekkee dañ koo génne woon ci biir ba nag mu dund nag dund bu dund bu wóor a wóor nga xam ne dund ba mat na kawar ga sax na kon dees koy rendi moom itam waaw des koy rendi war ko lekk te kon bañ xa bañ feesee biir yaay ji génn ci bitti te gis nañ ne mu doon dund dund bu wóor te kawar gi sax na dund mat na moom it kon nañ koy rendi rendi boppam door koo lekk su fekkoon ne génn ci biir yaayam ci sarso yi la wax amu ci kon moom desu ko lekk li ki dund ba matut mbaa kawar ga saxut kon desu ko lekk wal man xalifatu aji xerandiko bi xablin ci buum wa naxaw yi ak ngirom moom wal mawqufatu ak ku ñu fàdd bi xasan ci yet wa xiif ya ak ngirom moom wal mutaraddiyatu ak aji bartandiko wal natihatu ak ku ñu daan daan mooy dañ wa akilatu sabri ak lekkitu ndeg ment lekkitu ndeg ment mooy aw rabu fàdd moo ko tàmbali woon a lekk loolu yëpp im balaxa njom jot na zalika loolee min haa ci ñoom fi haadihi lwujuhi ci lay anam mablaxan ab dayo laata yuusu moom dañu dundati maaxu ànd ak moom lam tukkal kon defu leen lekk bi zakaatin ci rendi nee na mu la wax loo xam ne ak bam da koo xerandi mbaa lu mel ne buub mbaa ñu fàdd ko wet mbaa lu mel ne wet ni ci aw doj wala mu baras ci ko ci kaw daanu wala moromam jàpp ko doon ko daan wala aw rabuy fàdd jàpp ko ba tàmbali koo lekk yépp nee na bu dañee loola mét bu fekkee loola métti naa métti ba lu ñuy wax pàddu gaañu na pàddu mooy fi nga xam ne boo xasee gaañu moom day dee rek su fekkee la ko dal ci dem na ba pàddu ya dem nga xam ne dee rek lay def yooyu jamono yoon day jàpp ne mét la waaye yooyu jamono boo ko rendee rend ko du ko tax a baax sànni leen moo ci des bu fekkoo ni yu dal na ko waaye pàddu yi demagul nag waaw su boobaa kon duñ ko rendee lu baax kon nag pàddu aajo woon naa xam pàddu juróom la yàq bi nga xam ne moo nekk ci yaxut baat bi yaxut baat bi yàq bi ci nekk bu ko see dog rek xamal ne loolu pàddu la ndigg li bu ko see dog rek xamal ne pàddu la yaay sëdd yi nga waxoon léegi bi ngay rendi ne woon mooy seq dolu bi kenn ba képp bu ko see dagg dañuy jàpp ne pàddu la am na loolu fi wax ba mbuqee tur yi xaw naa naqay waaye noonu lañ ko mën a waxee moom xeetu butir la bu ko see dëmm rek pàddu la butir yi ci biir bi bu fekkee ne léegi xës na tasaaroo ba jóge fa mu placé woon rek pàddu la wóor bi ci boppam nga xam ne moo nekk daal bopp la bu xësee tasaaroo rek pàddu la yi ñu wax yëpp pàddu la bu fekkee ne yéen nga xam ne moo ko dal ci yéen la wax dem na ba kenn jóge gaañu rek xam ne rend bi amatul njëriñ boo ko rendee du tax ñu lekk ko bu fekkee dara ci amul nag boo ko rendee moom des na ko lekk xanaa ñu fàttali rek ne bu fekkee ne yu demagul dafa wëpp rek wëpp yoo xam ne moom mett na ba boo ko rendee wutoon du ko tee dee moom ndax taw ji metti na kooku moom dañuy seet bu fekkee ren nga ko te yëpp bu baax a baax mbaa deret ja nee na paf lu tee ñu lekk ko kon des na ko mën a lekk waaye bu fekkee taw ji metti na boo ko rendee mu dee te ba nga ko rendee yëpp bu baax deret ja itam ñëw paf kon ba tey des ko lekk wala ba sa ayib lil mul bi tar ñel aju loru ay yàkkula mu lekk ay mayta te meddi waye sibaxa te mu regg waye te zow wala te mu ci yóbbu la nee na ku loru mooy koo xam ne àgg na ci bu lekkul faatu kooku nee na bu boobaa lépp luñ ko araamaloon rek dagan na ci moom lekk medd araamaloon nañ ko waaye léegi mën naa lekk medd di yem rek ci lekk ba yëg ne aajam fajul waaye mën naa dem ba regg ndegam daa loolu mën naa dem ba regg mën na cee wut sax yóbbaale bu fekkee daa jàpp ne dana dem ba aajoo waat ko te du gis leen lu mu lekk fa ini sax naa dem doolu na xan xaa walis ko taraxaxaa motti ko fekk dafa wutoon ci medd ma yóbbaale dama dem ba yàgg nag moo si leneen lu mën a lekk nag kon nawet ci mbedd mi ndax mbedd mi loru bee ka taxoon ñu dagal ko ci moom yaar rek nag mooy ñi nga xam ne lu loru loru bu ko sañ a laal benn mooy sàngara sàngara dañuy jàpp ne moom da yokk aw mar waaye du ko faj fekkoon dana mën a faju mar ñu bàyyi ko mu naan ko waaye dañu jàpp ne moom da yokk aw mar ba tax na bu fekkee daa fat fat mooy amul taxaw ci ba noon te ëmb lañ ko jàllalee daañu ko may mu jàllalee ko sàngara ndax yooyu jamono faj aw mar tawat dafa bëgg a faj fat gi te des mooy lekk yàpp doomu aadama yàpp doomu aadama lañ cee bañ mooy dañuy bañ mu dugg mu jaral boppam ba tax mu xottu ormay jàmbur ndax na nga mu gisoon nit ku faatu fekk mu xiif moom ba bu la ko dee du tax mu sañ a lekk nit ko faatu ndax da nga yaamu jaamur di ko lekk ngir soowu boppam xotti ormay kooku rek lañ cay bañ yooyu yaar daal moom la sottee ci lu wax ne bu ko solooroon lépp lañ ko aaye woon ci ne sañoo koo lekk sañu koo lekk wala bu as ayut bu intifaaxi ci darañu bi ñu jihaar ci darab nodd isaar bi nga xam ñoom sibi jëf na ko darab nodd nag bu fekkee defar nañ ko ba dend nañ ko set mooy ci sibi su boobaa ci jàpp ndalu islam rek daañu la may ba jëfandikoo ci yaar mooy ndoxum kese la ndoxum ñuul ak lool nit nga denc ci gerte wala nga def ci ndoxum ñuul kese boo ko defee dara nedd gannaaw boo ko defee ba mu set daañu la sama yooyu yaar waaye loolu lu ñuy moom moo ko ci mën a def lool rek lay doon ak ndoxum ñuul kese wala yu salla di fa julli it xale yu ci yooyu wala yu baax te dees ko jaay dara nedd sobe la dees ko jullee dees ci julli dees ko jaay wala baas ayut bi salaatu ci julli xalaa jullee di sibaax yi ci bëri ndeg ment yi iva jëkk yet dem ren def na leen boo bay yaa seenu jaay ndeg ment mooy rab yu fàgg da doon fiq maal li muy sib ko ko lekk waaye amul ci araam kon nag boo ko jàppee rendi ko moom rab yu fàgg léegi der ba laab na mënees na koy jaay mënees na jaay julli itam wayoon tafaxu def na jëriñu bi suufil maytati ci ngënalal medd wa shahariha ak kawaram wama ak lépp loo xam ne wéru sàngu def na ko dundee min xaa ci medd mi fii xaalil xayaati ci waxtu dund wa dafa wax ne bu daral meddee lépp loo xam ne canoon ba muy dund mën nga koo dund te du metti du ko yëg gannaaw ba meddee boo ko soxlaa mën nga koo dund jariñoo nekk bu fekkee day day xar mu am leen mu am kawar waaye kawar gi xam ne ba muy dund mën nga koo siso te du ko yëg du metti kon bu xasee medd boo soxlaa kawar boobu mën nga koo xuuf jariñoo bu dee kawar boobu mën nga béy dañu dund kawar gi mëdd mën nga koo xoof te du ko yëg kon ba tey bu xasee mëdd mën ngaa xoof kawar gi ba tey ba tey lépp loo xam ne dañu dund rek ni ki bëree sax lu am dong dong yi nga xam ne doo ragal jàpp mu topp sa loxo te du metti yooyu soo bu xasee mëdd yooyu dong laab na waaye dong yi nga xam ne moo sax ca yaram na nga xam ne dañu dund boo ko doon mëdd muy jooy yooyu moom bu xasee mëdd sobe lay doon wa ahab li gën a sopp ilinaa jëm ci min malik ay wax sa la mooy bu dee fi ko fóot loolu ñu wax ne bu loolu meddee mën nga ko caa dund jariñoo ndax ba mu dund boo ko dundoon du ko yëg loolu la wax ne nag liñ gën a taamu mooy nga raxas ko njëkk door koo jariñoo wala yén tafax deeful jariñu bi di sihaa ci ay dungam moom medd wala bi xarnihaa du caa jëmu ci béjjënam wa abdulaa fihaa ak ay njaaxoom njaaxoom mooy we wa aniyaabihaa ak ay bañam nee na dong yi nga xam daa sax ci yaram nga xam ne ñu dund boo ko doon medd muy metti yooyu bu ko seen medd danga yooyu sobe la béjjén bi xam nga ne moom dañuy dund boo ko doon dund mu metti kon béjjén boobu sobe la dafa seen métti rek sobe la waaye itam xam nga dañuy dund boo ko doon dund mu metti ba tey loolu dafa seen métti sobe la bañ it noonu xam nga ne dañuy dund boo ko dund mu metti kon dafa seen métti sobe la ak ko dafa si def na al intifaaxu jëriñu bi an yaay bi fii ci bañu ñëw dafa wax loolu waaye mat naa seetaat moo tax tam nañ sax waxa duf tamit fa teef na fi zaalika ci loolee xam nga ñëw moom bokk na ci nga xam ne am nañ dara joo xam ne boo ko jamee mu sotti ko lépp loo xam ne am na dara joo xam ne boo ko jamee mu sotti ko rek dafa seen moo du sobe lay doon te xam nga bañ yi ñu wax ni muy bañ ñëw muy bañu dund boo koy ni mu metti kon wax bi gën a wóor mooy su fekkee dañu yow daa medd noonu la leen xam ne day am bañ ñu sobe lay doon am ko njëriñ am ko njëriñ sax ñu daganal ko wax bi gën a wóor mooy ñëw bu ko see medd moo xaram medd wala bañ medd ñooy amoo bañoo ci boppam sobe la bu fekkee ñëw dañ ko rend nag waaw kon kooku moom baax na mënees naa jëriñoo bañ yo waaw ndax nga xam ne bu fekkoon ne ñëw dañ koo corte solo nga xam ne kenn vendéeru ko waaw yooyu jamono bañ yo dañ koy sub rek yem ci waaw yooyu yooyu jamono dañ koy sub rek yem ci wama loo xam ne maata deena fii ci moom faratin janax mun sam ñun ci diw ñor aw saytin wala diw aw xasal ni wala lem daa ibin koy ajurey tarixa kon tuureef ko wala muy ukkal te def ko lekk nee na lépp ñëw yoo xam ne daa rëy bu fekkee dara da caa dee ba yàgg ca ñu wax ni muy diw ñor wala diw wala lem moo ko neex wala soow mee ma lépp lu daal boo xam ne jan lu mel ni janax doone ja daa janax rek waaye bu ne leen ba tey noonu la bu ca dara jee bu ca dara jeexe bu ca dara deexee medd ca ba nga xam ne tasaaroo na ja ndax xam nga wéru moom doo mën a wax ne sobe fii la tàmbalee fi la yem kon bu ca sobe demee rek moo xam janax ji wax moo ca dem ba beneen sobe ca dem pour rek ca des waaw fi mu nekk nii bu fekkoon ne tey ñeex mi daray sàngara dem na ci mbaa daray deret gi sobe dem na ci pour rek ci des ndax kenn mënta tàqale sobe si ca dem ak ak moom ndax dafa fekk mën a wéy moo tax lépp lañ ko tur rek mooy tur fekkoon tureef ko wàcceef ko wala mu ukkal te def ko lekk wala ba asa ayit an yustasbaxa bu dee fa niitoo bi seeti ci dooga wa sikki anoon ren moom fi xayril masaajid ci fafu jàkka yi maanaam nag bu fekkee ne diibu sobe dem mais diibu wax mënees na koo taal pétrole ñu wax ne mëneesu koo lekkati waaye mën nga koo taal pétrole ci sa néeg wala ci sa bitik waaye jàkka yi doo ko ci taal daga leen la diibu def am na bu dee pétrole xas na am sobe doo ko taal ci jàkka waaye sa néeg mbaa sa bitik yooyu moom ak sa wett mën nga ko faa taal moo tax mu teg ci wala tax a fab nootandu koof mën ko ci moom mooy nañ ko nootoo taal ci jàkka ja yeneen am na sobe wa in kaani doon nekk ne jaamiran di aji way tarixat ko nocceef ko ca nax ja wala la nga xam ne xaw laxaa nekk na ci am kiiwam mooy nekk na ci la ko wër boo ukki ba talee keef maa la nga xam ne baqee des na xam nga loolu la waxan léegi rek mooy ñawuru lu mel ni janax dee ja ba mu yàgg tuuruñu ko mu ne woon moom da cee saaroo kon lépp la ñu tuur ñu wax la ne la loolu kat sooy ba yaatal ko sooy wax ne yëpp ñam woo xam ne daa roo rek yëpp ñam woo xam ne daa roo rek ba ca soobee demee da cay tas kenn du mën a tàggalee moom su boobaa lépp lu ñu tuur kenn du ko lekk fi mu toll nag mooy bu fekkee day ñam way mais ni nga ràcc cere rek janax day ja wala beneen soobee dem ja nga cere dañu tolloon ci di wax naa bu fekkee ne la janax ja dee ci kawam day ñàmm way mel ne cere nga xam ne kon moom boo tonnee janax ja rek sànni ak la ko waru la ca des na mën koo lekk waaye loolu da nga ko yaatal ba tey wépp ñam woo xam ne bu dëgër la rek ba ca sobi demee nga xam bu ca mën a sar jëm na soowu sa bu ñu ko tonnee la ko war rek da des mënees na koo lekk loolu mooy gàttal bi xaala wax na sax noonu sëriñ bi ñu wax sax noonu ne illaa an yattoola nga dem dafa yàgg muqaamuha saxam nga fii ci jamaam fa innahu naka moom yutrafu def na ko ci kulluhu léppam sax noonu ko siiw la daa wax ne bu fekkee ne ñaw ba ñawu dëgër la waaye lu mel ne janax jee ca dee dafa caa yàgg lool kooku nee na sa yeboo ñu tóor lépp benn yoon du yem rek ci tonn ko ma la ko wër waaye lépp lañu ko tóor ay jooju wax taxul ñu dëgëral ko loolu ma kan wax rek lañ jàpp moom lu mu ci yàgg yàgg ndegam moom ñawu dëgër la rek bu tonnee janax ji sànni la ko wër rek baax na wala ba asa ayut ba taxaami ahlul kitaabi ci ñamu nañ téere wa daba ihim ak si ak dooni rendi wa daba ihim ak seeni rendi nañ téere yi mooy yahood ak nasaraan yi yahood moo nekk ci dinay Muusa alayhi salaam nasaraan moo nekk ci dinay Hiisa alayhi salaam ñooñu nag seeni ñam ab julit mën na koo lekk bu la wóoree ñam bi daal defuñ ci luy aay mel ne sàngara bu la joxee ñam mën ngaa lekk bu dee lu ñu rendi itam ñoom bu ñu ko rendee mën ngaa lekk lislaam may nañu ñu rendi maanaam ñu lekk la ñu rendi ñoom yahut ba nasaraan ak lu siboof na ak lu siboo min yahudi lekk nebba nupp yahudi ya mooy gereesu yahudi ya min hum ci ñoom ahlul kitaab min xayri taxari min ci lu dul araamal dafa wax ne suñu borom doon jàngal ci alquran nenu yahudi seenu dëng dafa tax bu araamal ci ñoom yenni gërees yi yenn nebban yi léegi ne kon xam nga bu la ko ab yahud bee joxit da nga xam ne moom daa dëgër bopp waaye yow jàng nga ci alxuraan ne aay woon nañ ko mu lekk ko yow nag kon bu la ko dee wax du araam ci yow sax waaye daañu ko sib bu ñu sañoon daal doo ko lekk ndax xam nga nga xam ne moom mi yahud bi daa dëgër bopp waaye suñ toog a lekk lii mooy li ngay jàng ci suuratu al anham mën naa wa min al baqari wal ganami حرمنا عليهم شهومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بحظمة فنقنا ذلك جزيناهم ببغيهم سينو موت يتخ
ولا يؤكل ديف لك ما لنغ خمنا ذكاه رندنكو المجوسي أب مجوس مجوسي موي كي جامو خرم manam dal lamuy jaamu nekkul diine ju bàyyi ko woon ci asamaan mën naa doon sawara mën naa doon leneen ci xeeti xërëm yi waaye daal leneen lay jaamu lu bokkut ak diine ju bàyyi ko woon ci asamaan kooku nag lu mu rendi ab julit du ko sañ a lekk
majuus yi mooy jaanu ko xërëm maanaam koo xam ne daal nekkul ci diine ju bàyyi ko ci asamaan nekkul ci diine yahuud nekkul diine nasaraan kooku nee na lu mu rendi ab julit du ko sañ a lekk lu may di ci àddum turu yàlla borom salaat bi nee na illa an yadkura smallahi alayhi bu fekkee da ci àddum turu yàlla moom def dana dana ko mën a lekk damaa loo xam ne kaani nekk na mën naa di bokk ci la nga xam ne lay sa suñu dëdd mu nekk ci moom zakaatin ak ren bi mën taxaani xam ci seenu ñam fa lay sa bi xaraamin du aji araam bu fekkee ne jaamu ko xiram bi ñoom moom lay jox nekkul sax lu ñu ren di far ni ki day muskit baa gerte baa tàng la yore waaye moom nee na bu la yore ni ayut maanaam lu mu nangoo ci jaamur gisoo itam sàngara mbaa lu koy aayal nekk ca kon su boobaa yow doo mën ngaa lekk ndax sax nekkul lu ñu ren di far wasay bi rëbb li lëxoo ngir po nekkul woon lu ñu sib la dem di rëbb ji rëbb boo xam ne boo jàppee da nga ko lekk waaye nag te rek moo la ci neex maanaam daal rëbb ci lépp moo la neex ni rek nga dem di rëbb ji waaye lërewoo ci yàpp su may rek rëbb ji moo la neex te it nag boo ko reyee da nga ko lekk su boobaa sib nañ sa rëbb boobu bu fekkee ne loolu rëbb la ci la sa dund aju maanaam tey bu fekkee rëbb jooyoo doo am loo lekk mbaa su boobaa rëbb gi day war kon ndax nit ku bàyyi boppam ba faatu waaye loolu mooy sag lekk su fekkee ndawal moo la jafe nga xam ne bu ñu koy jëndee yomb la waaye boo boo rëbb ji am ko kon ñu sopp ko moom ndax xéewlu xéewlu yàlla gi taamu nañ ko loolu tax ba araam bi rëbb ji nag mooy nga dem ci rab yi te doo ko nar a lekk da nga koy rey rek wàcc loolu moom boo ko rëbb ji ngir loolu moom mu araam ataa ma teg ci wërsëg bi rëbb ji li xëy na ndax ñeel lu po ba baaxul lu ñu daganal la rëbb ji boo xam ne po taxut moom dagan na ñu ko waxee sax léeg-léeg mu war léeg-léeg ñu sopp ko ni ma ko ràññeele léegi wa kullu ma lépp loo xam ne xattala xoo rey na ko kalbu ko saf xaj alma àllam ba defuñ xamal aw baasu ko wala sam ngoob alma àllam ba defuñ xamal fa jaay suñ aji dagan la akkulu ko ak lekkam ita arsaltuhu ndéem yebal nga ko alayhi ci moom nee na bu fekkee da ngaa wut ab xaj wala ngoob ak mboolem rab yi mën a fàdd ni ki mus mu am mus mu siiru sax ci la soo ko wutee jàngal ko ba mokk tegtalu mokk gi nag mooy soo ko nee demal mu dem soo ko taxawloo mu taxaw te bu jàppee du ko lekk tegtal la ci ne kon mokkal na wane noonu soo ko yebalee ci yóbbu maanaam bu fekkee danga danga tëye ci moom ci sa loxo ba gis la nga bëgg mu jàppal la ko nga wax bisimilahi dal ko yebal mu dem waaw kooku moom bu ko jàppee da nga ko mën a lekk soo fekkee ñu mën koo rendi nga rendi ko su fekkee pàdd yi xas na dem ba tey baax na sal nga koo lekk tey boo nga téye sa loxo nag ub sart la ci maanaam faaw nga téye xaj bi mbaa ngoob mi mbaa siiru si sa loxo mbaa kenn téye la ko waaye bu fekkee téye ko woon sa loxo nga jékki-jékki yabal ko rek doonte wax nga bisimilahi bu ko jàppee doo su ko lekk loo tax ñu lekk ko de mooy jàpp na ko waaye booñu ko xam nga xam na nag da nga koo rendi kooku dama des na ko lekk ndax day mel ne kon lu yoon a jàpp rek nga wax ko jàpp waaw su waaye des na waaye du xool boo leen tàddee rek du su ko lekk ndegam téye woon ca moom فكذلك نكنا نما لا خامني ان فبت ويل الجوارح جام كدي مقاتله اي بادوم قبل قدرتك تك سك اتن على زكاته ci rendem manam la nga rebo ju moy jam kadi man adul xal bi nga wax ba ngoom ni bu fekke dañ ko tey non ba yoral ko mu dem dañ ko jappé nga ñëna fekk paddu yi dem may fekk na mu gañu bu sedd ci ben set non ak ba paddu ko nga xamne tax ci gañu mu de gañu na su ba da nga ko lek ni la ko xawon legi dañ ko mëna lek وما لو خمني أدركته جتنكو قبل إنهاء جك سينك ويل لمقاتل جوني أي بادون لم يؤكل دوفكو لك إلا بزكاة برا جغريندي نانا بفاك يلنك بمي سي يبال خج بي مبا ngoof li mba la nga ci yebal jàpp na ko waaye ba nga ñëw fekk nga tàdd yi demewut ko kat faaw nga rendi ko boo ko seetaanee ba mu dee noonu mbedd lay doon boo ci mënoon topp toppoo ci sax mbaa ba nga ñëwee yam ca fa nga dencoon paak ba daa sori mbaa daa naqaree dindi ca mbar ma ba xar mu sax waaye bu bu ay rek ngeen ko rendi yooyu jamono sax medd lay doon bokkul naa lépp loo xam ne sub taxee rëbb nga ko di sax na ko ci sag fett ay ram xika wala sag feej fekku wax nañ ko lekk feet ab rek te dem jot nga bakkaa taxe ak rendeem sa bëkk yi nañ ko rendi wa in faatu ndem faat na ba naf si ak boppam fekku wax nañ ko lekk isa qatalahu ndem rey na ko sëf na ko sag fett naa wax ne bu fekkee ne ba tey dañ koo sànni ak fett wala xeej maanaam daal lu am ñëw ko ba tey loolu kon yoon maye na nga lekk ko soo demee te fekk pàdd yi di wut nga rend ko su fekkee pàdd yi dem na it dara nekku ca nga yàlla lekk rek maa la mu yëbut li fekk fanaan it xan ko wëlis la dañoo wax ne nag bu fekkee mel na ne jamoon nga ko waaye daa fanaan ba nga xëyee nga gis lu mel na nga jamoon bi du wóor ndax mën naa am kon daa ñu la nga jamoon rek waaye leneen la ko raw ci guddi bi ba nëpp lekk ko ci boobu boo ko mën a xàmme yow la nga jamoon bi mel na gaañoon nga ko waaye nga wóor gisoo ko ci suba nag nga gis lu mel noona dañuy wax ne kon doo mën a xam ba xam leneen doon rëbb ci guddi bi leneen mu ci rab yi leneen moo ñëw fàdd ko gaañ ko ni nga gaañoon ndax yow bokkutug mën naa bokkutug yow ba nga réer la woon waaye jooju wax moom jàpp na ko waaw lu mu mën a jàpp daal léegi moom moo xam sott bi moo xam leneen la su fanaanee itam du tee boo xëyee boo xam gisoo rek mën koo lekk wax yi la waxees na sax ne indi indi maay saalika naka loolee fii maa nekk na ci la nga xam ne baata fanaan na xan ko waris la mun maa ci la nga xam ne xatalat fa rey na ko al jawaarihu jamkat ya yow am na suuf na daal fett ga yuy jot ngir mën def na ko fekk fii maqaatil yu ciy pàddoom fa la base ayut bi ëkk na ci lekkam dafa am dafa ñuy teqale di wax naa bu fekkee da nga koo sànni woon ba lu fett ba ba lu fetal nga xam ne bu fanaanee itam bu xëyee boo xëyee boo ñëwee da nga xam ne ba lu fett bi moo ko jam rawante ni nga fekk ba lu fett ba ñu far ci sax na nga ko jamee demut mbaa ba lu fett bi nga ko jamoon nekk ca kon da nga daal di mën xam ne kon la nga jamoon biir la am na kon yooyu jamono kenn naatoo boobu mën nga koo lekk fu ñu naatoo koy mooy bu fekkee da nga caa yabaloon xaj wala leneen luy fàdd nga xam ne ab fàddam ak jom-jomam doo ko mën a xàmmeeg jom-jom leneen lu ko raw ci guddi gi tax taxamoo taxamoo loola am na sax ñu wax ne loolu la ñu wax naa doo ko mën a lekk waaye jàppal wax bi gën a wóor rek mooy lum ci mën doon mën nga koo lekk moo xam ne nga caa yabal ba lu fet wala ba lu fetal wala ab xaj yëpp ak yem da nga moom xam nga ne yow jàmm nga ko rek dafa laa réer ba danga xëy suba gis ko rek te engrais ci dara du te nga mën koo lekk loolu daal mooy ñu sukkandikoo wala pour que lu deful lekke al umsiyatu kojug nit kojug nit mooy yu miin doomi aadama yi yu miin nit ñi dinaa ci la nga xam ne wu ko lu def na lekke bi ci moom ak saydu rabb yi nga xam ne miin nañ doomi aadama yi na ci ganaar yeeg xar yeeg bëy yeeg kanaare yooyu moom nee na day aajoo nga jàpp leen rend leen ni ko lislaam waxee waaye ni ngay lekkee rawoo ci àll ba nga xam ne boo ko fàddee sax maanaam boo ko sànnee ba lu fetal mu daanu nga sañ a lekk boo ci yebalee la ko jàppal bu jàppee ñu ne ba dee demee nga sañ a lekk fukk ci yooyu yooyu ganaar fay ba naqaree jàpp boo ko dóoree ba lu fetal mu mët kenn ko lekk boo ko sànnee ñëw ko mu daanu far pàddee dem mu ganaar bi mbaa leneen a ci yam xar mbaa lu mbaa leneen des ko lekk bu fekkee ne naw dafa wax sax mënees na ko fetal waaye kon na nga koy jam ci waxam du pàddu mu ne nga jam ko ci tànk bi rek tànk bi dem nga waaxu ren bi waaye boo ko jamee ci pàddu rek moom naw sax muy mët wal xaqiqatu daatug tudd sunnatul sunna la mustahabatu dana buñ sopp nee na gàtt bi ñu tuddee doom dañ koo sopp boobu xaq def na tudd xañul mawloo di wëlis liir ba yow ma saabi yi ci bisub juróom ñaari la bisaatin ci buwaat muslima ba mel ne bi nga xam ne bakar naa tuddoon nañ ko min simil ubbahiyatu ci ma ci atum tabaski la neexee ne maasum tabaski wa sifatiha aku melam maanaam gàddu tudd dañ koo sopp waaye dañoo sart sart yi nga sartoon ci bopp tabaski rek nga ciy sart ñoo yemoo at ci tolluwaay at ñoo yemoo itam melo lii day tabaski day gàttu tudd loo xam ne doyul tabaski du doy ba tey gàttu tudd xanaa dañu aadoo rek fii moom boo amee ngénte daanaka ngénte soppi ko naa ci fi aada waaye nga xam ne loo tudd rek baax na loolu sax ko tudd loo xam ne tum tudd waaye mënu ko ñàkk def mu daal def rek loolu ngénte la moom tabaski ñeeñoo rek daa war a mel ni tabaski ñoo bokk lépp wala yux sa bu deful lima deful limaale fa sabaxat ayaami ci juróom-ñaari fan ya alyoomi bis ba àll fii ba nga xam ne wali da juróof na ko fii ci moom xam nga dañoo wax ne bu ñu dee tudd doom dañ koy tudd ci bisub juróom-ñaareel ba loolu nag bu seen juddoo kenn ko cooy ñëwaale ci kaw nag bu fekkee fekk na booba fajar fenk maanaam fekkee fekk na fajar fenk booba ci jamono yi nga jàngee nga xam ne yow julli nga takkusaan ci lent bi saxagut ku judd woon ci waxtu wi bu amee juróom ñaari fan nga fay ngénte nga fay tudd te boo cooy ñëwaale tey loolu moo tax ngénte doon su bis ba delsee nga xam ne ku judd woon ci waxtu wi ngay jàngee ba la ñu juróom ñaar te li muy jàng nag mooy dibéer bu fekkee ne wañu wañu waale woo dibéer tàmbali altine doon ñi ba am juróom ñaar ba tey ci dibéer nga daan waat loolu moo tax ngénte doon bis ba delsee
ñu di dugalé fajar fenk bu bisum genté moy bëcc da nga yoss ci gannaaw bëcc da nga yoss bu yossé moy doon bisum genté bu fekké yamu julli nak bu ñu judd nak fekk na fajar fenk nak rawante na ci bëcc bu ñu waxtu yu jàng nak kon man nga né bisum juddé rek bu yossé moy doon genté li té du té mu dépponté ñu ñoko waxé tak tak bu ñu wax légui bokku sété itam fofu rek lay delu ku judd dal ñëk fajar di fenk jappal né bisum genté moy bëcc da nga yoss bu yossé lu bëccëg bi nga jëm ba nga yeesu lay doon deuxiè koo xam ne gannaaw wañet fenkee gannaaw fañet fenkee la nag ba kere jant bi sax ci bëccëg bi waxtu juddoo rek bis boobu bu deuxiè lay doon wa tasbahu def na ko rendi daxwatan ci yor yor maanaam gàtt tudd boobu sopp na ñu rendi ko ci waxtu yor yor wala yu nafsu deful laalal asab yu xale ba bi feeñ ci dara min damihaa ci dara ci gàtt boobu sib nañ nag ñu jël ca dara ja di ko ko taqal ndax loolu dafa mel ni ñu njëkk lislaam ñoo ko daan def wax
waaw ñoom dañu daan wax naa bu ñu jëlee ci dereti gàttub tudd bi taqal ko doom ji day tax xale bi bu doonee mag nekk jàmbaar nekk ku mën a tuur deret yooyu jamono na ñoom ci seen aada xeex ak jàmbaari ci xeex dafa xewal lool moo tax waaye loolu lislaam moom dind na ko te sax boole ci dereti rendi jooju sobe la sobe la ba tax na ni ñu def sax bu ñu rendee lu mel ne tabaski kenn ñëw ci di laal ci deret ja di ko taqal ci ab jëxam mbaa yooyu yëpp njuumte lu rëy rëy la ndax deret jooju sobe la
ñu yëkk lu des na lekk min haa ci gaatu tudd bi waytu saddaku te def ci saraxe maanaam sopp nañ gaatu tudd bi nga boole lekk ci ak saraxe ci waaw lekk ci ak saraxe ci ak joxe ci sax ñenn itam ñeneen ñu lekk loolu bu mënee am baax na waaye suñu su ci jaay dara moom mu gàttu toos ki ñeneen moom suñu ci jaay dara wax nañ ko ci gannaaw sax wax nañ ne sax kii doom kii doom mbir bi sax wala ko doon faj jigéen ji ci hôpital sax suñu su ko ci wax dara
doñ ji mu wax baatu wolof la maanaam bu jigéen ji masaa di am doom mag mu jigéen ma nga xam ne mooy ñëw di ko toppatoo di ko dimbale ba mu jur njur mu sell ko defee mu toppatoo ko def la ca war loolee muy def la ñu tudde do la ñu tuddee dooñ moom ma koy def nag kon mooy ka ko dooñ kooku am na am na lu ñu ko daan jox ci gàtt bi waaye loolu lépp ñoomte la sëñeesu ko
wa tuk sunu def na damu xisaamuha ay yaxam yaxi gàtt bi lay wax te daan wax naa gàtt boobu boo demee yax yi day feeñ ci xale bi mooy xale bi bu juddoo waaw xale bu màggee day doon ku nee doole mel ne ay tengoom daa da- daa damm ndax la nga damoon yaxi gàtt ba bañ ko tuddee woon waaye loolu waxi jaahi rek la maanaam ñëpp lislaam rek ñoo ko daan wax ci lislaam bàyyiwuñ ko mënees naa damm yax yu baax boo ko bëggee damm wa in xoli xandeem wateef na shaharu rasil mawlidi kawarub bopp liir ba wattu suddixa te saraxeef bi wës na ci màndaxeem wattu suddixa te saraxeef bi wës na ci màndaxeem min jahadin ci wurus aw fubut wala xaalis fa daalika loolee mustahabun lu ñu sopp la xasanun te aj rafet la maanaam bu fekkee da ngaa wat kawarug liir bi seet lu tolloo moom ci wurus ba xaalis nga saraxe ko mu ne kon loolu sopp nañ ko bu baax a baax loolu nag xam naa boobu boo ko dee seet ci xaalis yi nga xam ne përëm rek la përëm bi nga xam ne moom ngay jaayante ci ci li moom saraxe ci lu diise nag kawarug naar bi moom dana yomb waaye xam naa bu dee xaalis dëgg-dëgg moom ba piire wala wurus dëgg-dëgg moom daa daal di gaaw a seer daa daal di gaaw a bari bu dee jamono yi ñu toll léegi wa in xulli xandeem réexeef na réex mooy taqal rasu yooyu boppam bi xalooxan ci gët bagal mu di wecc mi ne dama ñu deret ja allisi ja nga xam ne kaanat nekkoon na taf xalu fi di ko def aljaahiliyatu way réer ña mooy ñu njëkk lislaam fala baasa kon déetu ay bisaali ko ci loole nee na bu fekkee mënees naa taqal lat ko lañ ci bopp bi muy mu wecc deret ji nga xam ne moom la ko ñu njëkk lislaam daan taqal te ñoo xam ne ne la sib nañ ko moo moo lar ko ne kon dóoga ci bopp ba mu ne kon def nga lu baax kon sopp nañ ko lool dafa wax fala abas sa bisalika rek waaye te lu ñu sopp la li muy awit lu ñu sopp la fi mu nekk wal xitaami làkku làkku ci wala fi leer yi dëgg-dëgg mooy xaraf sunnatu sunna la fi jikkoor ci góor ñi maanaam góor sunna la ñu xarafal ko xarafal gi nag mooy li ñuy wax buñu buñu ko mooy mbar mi nga xam ne mooy wër bopp sawukaay bi ñu dagg ko mu dañ ba sawukaay bi lépp feeñ loolu mooy xaraf sunna la ci góor waajibat na suñu suñu fedli aji war lay firi waaye suñu fedli rek dañu wax ne nag sib nañ ñu xarafal ko ci bisum juddoo mbaa bisum ngénte ba ndax yëfeet lañ gis ñu def loolu tawit nañ ci farlu xarafal ko balaa kàllafe waaw léegi balaa kàllafe nañ ci farlu xarafal ko waaye buñ koy xarafal ba mu xës kàllafe am nañu ne moo war a xarafal boppam kon léegi ndax xam nga ne xool awraam araam na te nee nga xarafal bi sunna dong la kon nag waruñoo toggoo sunna maanaam bëgg a def sunna ba tax ñu toggoo lu araam kon daanaka bu demee ba jëwee kàllafe sax atewee benn la bu demee sax bi kàllafe waaye jëwee na ko soo ba mu xarafal boppam ndax xool gi awraam léegi araam na te nee nga xarafal ñu koy def sunna la kon nag bëgg a def sunna du tax ñu toggalu araam wal xifaa bu tonniku fi nisaay ci jigéen ñi makrumatun teraanga la tonniku yooyu da ngay wax ne jigéen ñi am nit ñoo xam ne seen sawukaay day am lu mel ni xeru ganaar bu ko defee loolu nag ñu dindi ko tam bañ a ëpp mu xaw a niru xaraful jigéen ñu koy tudde tonniku waaye loolu sopp nañ ko ci jigéen ñi teewul nag buñ dee dégg xibaar yi sax day am wax yu bari luñ ci wax ci yecc yi yenn réew fu mel ne misraak fu mel ne foofu waaye teewul daal yi daal la waa fiq maali moom jàpp